ànd ak moom ci bato bi mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bato biy daw duusu géej yi dal bato biy daw duusu géej yi dal ñu ñëw ba ci moom ni ko yaa wax ni boo julliwul tooñ yàlla soo jullee ci bato bi tooñ ñu nooy def Serigne Touba nee ma mayër ci fenêtre bato bi yëg ni yokk nañ aliir bi ma ne jàkk ndox mi ni ko wasiqtu bi rabbil arsi zil juudi wal afimal Mustafa walaw li muxlidun saf wi sëgg sànni sama der mhm. sëgg sëggi sama jëbi taq suuf ma mhm. bàkk yàlla ni wallahu yanzuru nii wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri za nafiyin bila darari xam nga ñooñu bi ñuy volontaire yàllaa taxoon yàllaa taxoon bëgg gi bëgg yàlla ak wóolu gi mu ko wóolu mhm. moo tax yàlla ni ko li ma lay xamal ci yoonu géej gi laa la koy xamalee te mooy àllama ni rahmaanu fi safina bi anna ni xadimu zil madina mooy yàlla mhm. xamal na ma ni mhm. bis dana ñëw tuubaa gii maa ko yilif mhm. moo tax boo nee tuubaa rek xel yépp dem ci Ahmadul Xadim sa waa ji waaw mu moom ci boppam ñu taxaw tubaab bi limal ko ne ko jaar naa fi ak Samori ture jaar naa fi ak Macky jaar naa fi ak Lat Dior yow yow yaa ma dese woon. te tey mi ngi nii mu ne ko waaw ñooñu da ngaa njëkkee woon ci ñoom moom moo tax nga mën a lim benn ñaar ñett ñeent waaye soo njëkkee woon ci man Ahmadul Khadim mu ne amu ah, ne ko soo wàññee benn doo ca teg ñaar. ci la ko tubaab bi ni woo nit pouvoir àdduna yàlla daf ma koo dénk. Mm-hmm. may fale di folle. Mm-hmm. di tëje di génne. Mm-hmm. Serigne Touba ne ko yow sa pouvoir ci àdduna la yem. Mm-hmm. man Ahmadou mii di wax ak yow ñaari pouvoir la ma yàlla dénk. Mm-hmm. bu àdduna ak bu alaxira mm-hmm. malakanil maliku dunyan wa uxran nifaali wa ibqaa'i wa fawzi bila ana bi kaw nii qadimal Moustapha tatabayyanu. la ilaha illallah. loolu yaakaar naa père bu ko toppee la ñu. wallaay su ko toppee fii la ñu waaw lii gis-gis rek moo ko mën a am ci réew mi. gis-gis rek moom moo ko mën a am fii ci mi. mu ne nag maa fii maa mën ci géej gi maa mën ci jéeri ji te maa mën ci bàmmeel te nee na ba ëllëg yomal xayam nee na ba ëllëg nee na maa mën fii maa mën fënu jëm te nee na ba ëllëg yomal xayam oustaz tey ñu ngi jëm foo xam ne dafa xaw a doy lool ginnaaw bi ma nuyoo sama sang bi maam Ablaye le trésorier de l' état mhm. maa ngi lay gërëm baax di ñaan nga gudd fan mhm. di ñaanal ñëpp ñoom góor gi si Dieng Famara Diédhiou fàttewu ma kenn Caaroy Géej fàttewu ma kenn mbay si laa textile fàttewuma la maa ngi lay nuyu baax a baax a baax a baax Boubacar ji baax As Cissé maa ngi lay nuyu bu baax As Cissé Sila Mamadou ADK maa ngi lay nuyu di leen gërëm bu baax leen sant di ñaana réew mi yëpp jàmm di ñaanal nag Bougane Gueye Dany sunu borom guddal fanam lool. ci barke sëñ Touba taxawu ko tingoom ko ba ñëpp seen ko te dara bañ ko yàq sama sang ba Cheikh Mahamadul Abi Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Daaru Rahman maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Abdou Kandji di nuyu Daaru Rahman gépp ak sunnatu rasul maa ngi leen di nuyu oustaz tey ñu ngi jëm ci mais mésentente ba conjugale moom la tubaab wax ci kàllaam ak tubaab mais en mésentente conjugale mu ne quand le mari pose l'acte un de quand le mari pose l'acte 1 de l'abandon mésentente conjugale defe naa mooy coow li am ci biir ab sëy wax ji am ci biir ab sëy ñàkk a déggoo buy am ci biir ab sëy mésentente xiiroo ak ŋaañoo boo xam ne dem na ba déggoo mënatu faa am ci biirub sëy mésentente ñu ne nag quand le mari pose l'acte un acte un dem na ba ci fase naa la wala dëddu la war la ginnaaw abandonné la dootuñu ñëw ci yow duñ la jox ak ay sol seenu dal dugg ab àll topp jigéen te amoo wujj amoo kenn wala sax doonte konte dangaa am wujj sax nu daw dem daal di féete carrément dem jengi fële ci lu jaadoodul te jigéen ju nekk moom moomu jigéen ju nekk moom ak ayam jigéen ju nekk soo ko xayee ak soo ko xañee ak ayam foo dem fu nekk soo fa ayee loo fa def lu nekk lu ca sosoo lu nekk oustaz kooku sunu borom am na lu mu ca wax. jigéen ji moom ak ayam nga xam ne lii moo ko moom nga rocciku ci biir ak ayam yaa xam da ngay liggéey ci bureau bi ba saa di jóg sa oto daal di génn ne da ngay naani kafe wala fee nga fégalee da nga faa fàtte nangam dem. loo fa séq ak moom lépp lu ca xew yow ak moom lépp lu ca sosu yow ak moom kooku laajal oustaz am na nu nu ko tuddee mm-hmm. waxuma nag nga abandonné ko joxatoo ko lekk joxatoo ko naan waxatoo ak moom joxatoo ko la war ca moom sànjaayootoo ko xamalatu la dara ndax ne ëlbati ku nga won ko ginnaaw teg sa jë daa saw dàll won ko ginnaaw daal di teg sa jë ñu dem a dem sax ba ci mu jur fase naa la ci lu jubadi loo xam ne teguwul ci yoon jubul ñu ne loolu nag ci biir sëy yi ci biir sëy yi ci biir néegub sëy yi diggante ñaari way dencante yi lan moo ci ab taxawaayam foofu lan moo ci mm-hmm. ab taxawaayam góor gu dem ba abandonné këram wane ginnaaw ah sama bët de may na ma góor gu dem a dem ba daw ndax su tëddee doon koy wéq léeg-léeg mu teg loxo mu teggi ba max su nee dama ne kenn du ko toppatoo mm. su xëyee suba kenn du ko tàng lal ndékki. dëgg la. su ay yeneen tilimee ñu ëlbatiku daal di football fee. kenn du seen yéen ba mbaax baax dem fóotal seen bopp daal di paaseel moom daal wàcc nañ ko li muy dund moo koy dund ci biirum nekkam moo tax na jabari jàmbur kenn du ko gërëm. gërëm li ci mbedd mi bokkul ak ngërëm li nga xam ne moom moo war a am ci biir néeg bi yaa ngi gërëm jabari jàmbur fekk la jëkkëram di daj billaahi wallaahi dafa noppi waaye su ko waxoon sax musiba dafay am mën naa tukkal jamono waaye su génnee lim lay won ci mbedd mi du bokk moo gën a mokk pooj ci mbedd mi moo gën a neex làmmiñ ci mbedd mi màggat mu ne ci koñ bi mën nay togg di la tibal la yàkkal di la ko yóbbul waaye jëkkëram amul jàmm ci biir néeg bi jëkkëram amul jàmm ci biir néeg bi ma yaakaar ne néeg bi ci la <laughs> wala du foofu mm-hmm. maanaam nga baax ci mbedd mi ak ci aneer yeeg yooyu ma yaakaar ne baax sa goro ak sa borom kër a ko gën nga baax ci mbedd mi baax ci xarit yi baax ci dëkkandoo yi baax ci ñëpp man de suma sañoon nga baax ci sa jëkkër baax ci sa goro moom moo ma ko gënal ndax nee nanu képp ko la naan kaay ma digal la te bu ko sab goro yëpp nee nanu kooku ba ko képp ku la naan kaay lii ma lay wax nag bu ko wax sa jëkkër nee nanu kooku su fekkoonte ne sab xarit la def ko ab noonu ci bis ba def ko ab noonu kaay ma digal la waaye bu ko sa jëkkër yëpp ñëwal ma teg la ci yoon wax la nu ñuy séyee waaye bu ko sab goro yëpp jigéen jooju boolewuma ko ci jigéen ji may jooyal mooy jigéen ji ma la wax ne doonoo jekki-jekki won ko ginnaaw defut waxut ñu dem mu daje ak góor goo xam ne jikkoy gileem la yor day sëgg ci garab gi am xelam nekk ca garab gële mën naa jóg léegi ñàkk léegi ay million ci jigéen te soo gisee jabaram bëgg koo yërëm jigéen jooju laay jooyal waaye jigéen ñi ma la limal léegi ñëpp ñooñu waxuma ak ñoom waxuma ak ñoom taaru ginaar nanu yor soo leen gisee ci biti rafet na lool rawatina su naaj wi tàngee <laughs> ba tàng rafet na lool waaye woo soo leen toppee ba fa ñuy tëdd rek nga jéppi leen xam ne ñi amaluñu boroom kër njariñ mm-hmm. amul génn góor gu nu amal njariñ génn góor ñoo bëñ buy mettee yem wekki rek sànni foofu nan ne jërëjëf papa kontaan nañu ci bu baax a baax a baax euh, donc thème baa ngi noonu sénégalais ñu jàpp ko numéro téléphone yi aussi ñu ngi noonu au bas de l'écran euh, dañuy jël kàddu gi rek daal di koy jox Oustaz Modou Fall moom itamit mu introduire laataa ñuy ñëw ci Prospère maman Oumou ak Ben Benoît jërëjëf Sophia jërëjëf père yaakaar naa indeeti ngeen thème bu am solo boo xam ne bu ñu ko traité am naa yaakaar ci ni ñuy suivre ñëpp danañ ci jëlee njariñ muy lu bari ci Sénégal Sophia mm-hmm. nekk ak sa jëkkër ñu ne diw diw lay sëyal mais buum bi doo nga fa nekk mooy ni diw diwey soxnaam doo nga fa nekk mais amul benn devoir bu war ku góor ki ci jabaram boo xam ne ku góor kaa ngi koy def am na ñoo xam ne dañoo abandonné seen aawo ba nu amee deuxième femme la nu fàtte ku njëkk ka hmm. boycotté ko tegee ko à côté du ñu wax ay waxam am na ñoo xam ne bu nu ayee ci seen néeg aawo yi dañuy jënd jàngoro mooy bu nu fa demee wane beneen kanam dama feebar nangam ak nangam fekk da nga koo jubluwul moo tax am na ñoo xam ne itam dañ leen di dëddaleeg seen jëkkër bul yaakaar ni abandonné yi nga gis yépp ku góor kee amee ko déedéet am na abandonné yoo xam ne def def la du tayeef de am na abandonné yoo xam ne nit a sol ay dàllam dem dëkk dëkk fay xaalisam ne damaa bëgg nga dëddale sama jëkkër ak diw bu mu ko xoolati na gën a show ci man fàtte yàlla jamono jamono bi ngay def lu bon da ngay fàtte yàlla ba pros kii benn am na de jamono bi ngay def lu bon da ngay fàtte yàlla ci sa xel xalima am na parce que fàtte nga ni borom bët bu borom bët bu rëy bi mi ngi la tiim hmm. parce que moom laa taxuzuhu sinatun wala nawmun moom du gëmmentu du nelaw du absenté. am na de. yàlla nee na ni ngay toogee ba mu yàgg yow garde corps bi nga ni wàcc naa na ma keneen remplacé parce que man damaa sonn nee na fekkuma ci man yàlla man yàlla duma ma gëmmentu du ma nelaw du ma sonn duma ma buuse waxtu wu nekk li jàmm bi nekk di ko def yàlla nee na maa ngi jàkkaarloog loolu. am na koo xam ne nag daa nekk ak borom këram ñu abandonné ko mm. boycotté ko. yor sa ñaari soxna féete kenn ki bàyyi ki ci des maandu woo te yàlla ñu digal pour ñu maandu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaani wa itaa idil qurba yàlla nee na maa leen digal ngeen maandu tey rafetal ci seen mbokkum jullit maandu kon devoir la mais yor say ñaari soxna te yemale woo leen jeng ci aawo bi bàyyi ñaareel bi wala jeng ci ñaareel bi bàyyi aawo bi te alquran waxoon ñu ni takk ñeenti jabar du farata ku mën a yemale takkal ku ko mënul bu ko def fankixu maa taaba lakum min an nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa yàlla ne na takkal benn takkal ñaar takkal ñett takkal ñeent waaye bu fekkee mënoo maandu ci say soxna mënoo leen a yamale par parloo bi mënoo ko gérer mënoo bañ a féete kenn di abandonné ñi ci des mënoo ni bu la aawa bi joxee ordonnance moom ngay jëndal bàyyi ñaareel bi boo tukkee ba ñëw boo indee sëri ci am na sa doom yooyu jox am ñooy bàyyi yamale woo ba say doom màgg ci loolu xam ne sam papa mii daa jéng ci diw yàlla nee na soo ko mënul yamal ci benn benn bëñ buy metti moo gën a noppale ñaari bëñ yuy metti kon képp koo xam ne da ngaa abandonné say soxna wala da ngaa abandonné sa benn soxna bàyyi nga li la yàlla sant waaw mais oustaz yamale mënta nekk mhm. yamale mënta nekk yow mi sax mënoo ko soo yoroon ñeenti soxna ñoom ñëpp ñu bokk nekk ma yaakaar ne sunu borom moom moo ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu loolu bokkul yàlla dafa wax ne doo ànd ak ka nga xam ne foo jëmee sa xarkanam mu jëmee fa ab xarkanamam moo ustaas ngay def ki nga xam ne soo oppee mu opp nooy def ki nga xam ne soo tëddee mu jàll sa ginnaaw nan ngay def ki nga xam ne foo jëmee sab xarkanam mu jëmee fa ab xarkanamam koo noonool te nga xam ne warta waroo ànd ak moom bëggoo mu ànd ak moom def na ko am noonu daal di ànd ak yow kooku noo koy def ki nga xam ne saa yoo jógee fekk ko sa biir yi noonu saa yoo ne benn mu ne ñaar fukk ak juróom saa yoo ko joxee téeméer mu ëlbatiku ne la duma ko laal nga ne ko demal wuti dolli ca su wutee dolli ca rëdd ko ci miir bi soo demee ba yor mu ne la bii bis sàngam bii bis sàngam bii bis sàngam danga ma koy fay ak ki nga xam ne day dem di wuti ay càmmiñam di ko may muy ëlbati ku dugal ci njël li di nga leen yemale ah oustaz nag dox naa nag de doo doo leen yemale jërëjëf jërëjëf père yemale maanaam Sofia boo gisee charia wax yemale ah. mooy li ngay séddale na nga ko yamale ah waaw mm-hmm. ay gi <laughs> père boo teeyul mënoo xam fi ma jëm yamale yemale ba kay li ngay séddale da nga koy yemale mhm. ay gi mhm. da koy yemale mhm. loo leen di jox ñoom seeni soxna boo ko mënta def ñeent comme ñeenti soxna nga yor bul jënd pour kenn bul gënale itam seeni doom parce que ñoom ñëpp ñoo yem ci yow mais xol bi ma am na ko mu gën a bëgg kenn mënta amandoo ñeenti jabar cofeel gi yem ci ñëpp mais ku ne xam na ni Seyduna Muhammad donc yemale gi ci mbëggeel gi déedéet yonent bi ay soxnaam xam nga ku ci gënoon a bëgg Seydatuna Aïcha daf koo soppoon yàllaa ko bindee cofeel boobu ci seen diggante loolu mënul ñàkk mais fi may waxee mooy lépp loo xam ni danga koy defal say soxna moo xam matériel boo leen di jëndal la moo xam cadeau booy jëndal seeni doom la boo bañee sa kër tas lislaam nee na yamale leen ci lépp loo leen di jox mm-hmm. kon nag yow góor gi nga xam ne Sofia dangaa xëy xëy abandonné sa jabar te defu la dara xëy xëy dépense bu jot doo ko ko jox boo waree reer si doo reer si bu tabaski jotee ngay par parloo boo ayee ci ñaareel bi di ko tagg di ko wax lu ne boo demee fee fas sa kanam maanaam di def yu sew kon saa su ma la nga bëgg ñeent ni ngay bëggee kenn ki à yi nga wax ñu yemale ko munoo ko bëggee ñaareel bi munoo ko bëggee ñetteel bi munoo ko bëggee ñeenteel si soxal ci say soxna il faut nga am ci koo xam ne mooy sa préféré loolu du nit ki may yàllaa koy def même si njaboot sax xam nga yenn saa yi nga am juróomi doom mhm. mais daf ci am doom joo xam ne moom ñaaree ki nga tuddee sa papa wala ki nga tuddee sa yaay cofeel bi gisoo cofeel bi maam di am ci sët mm-hmm. cofeel la quoi waaw yaay ji ko jur amu ko ci doomam am na meer yoo xam ni boo laalee seen sët dañ lay jox seen bakkat mm-hmm. bàyyil sama sët bi am na ñoo xam ne bu ñu leen tibbalee añ wala reer fokk ñu may seen sët ndax cofeel bi nu am ci moom cofeel yàllaa koy def mais du tolloo mais fi may waxee mooy koo xam ne dangaa am ñaari soxna Benoît jël kenn ki féeteeg moom ñu naan moom de aaw ñaareel bee ko xamal léppam nga fësalal sa moom la féeteel faalewu ko kële lu mu wax nga def ko histoire kële nag dem na ba am ay doom yu mag mënatul a tas parce que tas rafetatul ci seen ci digganteem ak ki muy sëyal mu toog fa nag di muñ te yàlla tax waaye damay faral di wax ni li olof njaay di wax naan ku yàgg ci teen bak fekk la fa am na loo xam ne boo ko sëyee muñ jiital yàlla yar sa njaboot orienté leen mhm. teg leen ci cadre siraatal mustaqima balaa ëllëg a yàlla dina la teral ndax amul kenn li seexul xadim wax mhm. laa tashtari dunia bi uxra yaa fata man baa a nuuran bi dujaa fa sa yëndëmu seexul xadim nee na ku jël sa leer jëndee ko lëndëm da nga ko réccu mooy lu waay lebal yàlla ci lu baax da nga fa yeeku mhm. nit ku nekk rek na nga sëyee seetlul yenn saa yi nga dajeeg nit ni ko kuy sa papa mu ne la diw kuy sa yaay mun a diw nga ne acam <laughs> ah, yow mënoo bañ a mënoo bañ a am li li ma fekke sa yaay dund ko ci sa kër baay mm-hmm. ala kulli xaalin da nga tekki loolu dafay am mm-hmm. kon message bi may lancé góor ñi abandonné seeni soxna nañ leen téye jigéen ku nekk ak moom da nga koy yërëm xelam matul daa bàyyi kër ndeyam ak baayam ñu dénk la ko yow góor pour nga doon ndeyam doon baayam mm-hmm. waaw ki nga war a doon ndeyam doon baayam boo dëkkee ci di ko xor ñoññal ak di ko jooyloo Sénégal ngay gis kuy takk jabar mu doon 80 kilos par exemple wala 60 kilos. Mm-hmm. ngeen dem mariage 4 ans bu xoolee ndaw si 2 kilos lay mat. bu jéggee ndox kenn dootu ko naan. dëgg la nga bàyyi ko muy souffrir teg ko naqar. Mm-hmm. muy jooy guddeeg bëccëg di wër ay këri càmmiñam di ñaan lu mu dundee. Mm-hmm. or que jëkkëram milliardaire la wala millionnaire la fu mu jaar ñu ne diwa ka baax. li père doon wax. baax ci biti mhm. te boo ñëwee ci kër gi kenn du la jariñoo mhm. Mhm. kon nag li may wax mooy képp koo xam ne dangaa nekk ak sa soxna wala nga nekk ak say soxna na leen yemale ñoo yem ci yow bis boo fi faatu woon aawa du ëppale ñaareel ñaareel du ëppale ñetteel ki ñu fase sax te it daam jéexagul ci lay bokk xam nga loo war a xam ñépp a yamandoo ci yow Seydina Muhammad dafa feebar ci mujjug dundam mu nekk ci sukuraat di waaj pour dem booba feebar na ba cër yi mënatul a tàlli mënul dox pour dem jàkka ja mais ci maandu teem daf daan wax ni néeg bu ma ayee nañ ma nañ ma nañ ma diri mhm. ma dem fa même bu fekkee sama feebar mayu ma ma dox nañ ma yóbbu ci néeg ba ma fanaan fa pour jox ko àq bi mu moom ci man soxna yi ni waxtaan ñoom ñëpp ci seen biir daat ni moom lislaam lay doxal ak maandute waaye wéram mayu ko ko nanu ko bàyyi nekk naa Aïcha mu féete fa ñoom ñëpp ñu d'accord ci ne Aïcha xam nga lu xew fiiraange jigéen yi xew jàppuñu waa ji daal banoon bàyyi nañ ko ak yow ñu bàyyi Seydina Muhammad mu féete ak naa Aïcha ay néegam Aïcha nee na sama néeg la féete sama néeg la féete ba ni mu faatoo bi muy faatu ci sama biir néeg la faatoo bi muy faatu mi ngi jël boppam teg ko ci sama tànk ma koy bombal ay bëñam mu naan tasawwaku fa inna siwaaka mutaharatun lil fami wa mardatun li rabbi maa jaani jibrilu aw awsaani bi siwaaki Aïcha nee na lii la may dénk ba faatu ndax cofeel ak yërmande kon nag jigéen ñi ñi nu abandonné ñi leen abandonné nañ leen teewaat àdduna amul solo te nag wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi yàlla nee na jour yi day wëlbatiku de 2020 mën na neex lool 2021 ñëw dootoo dese 100 kon nag na ñëpp rafetal rawatina nag rafetal jëmale ci seen i soxla. jërëjëf oustaz. Ah, ngeen seet ñu mu leen wax de. déglu leen ko baax négal bala muy rëcc ndax tam may raw. da ngaa sonal oustaz nag. waaw négal non seetlu leen ñu mu leen wax. dafa ne jigéen ñi ñi leen abandonné mooy jigéen ñi nga xam ne doonoo sonn jigéen ñi nga xam ne doonoo joxe bopp jigéen ñi nga xam ne ñu ngi tarbiya jigéen ñi nga xam ne soumission total moom nañu def seen diggante ak seen boroom kër te gestu wuñ leen ñooñu la ustaas bi waxal mais papa ustaas yenn saa yi nga juum nag waxuñu lekk ki nga xam ne mooy juum bi day indi aw ay waxuñu lekk ki nga xam ne dafa xatal boroom këram ba borom këram daw waxuñu la ki nga xam ne guddeeg bëccëg aw ay waxuñu la ki nga xam ne comme ni ko ndongoloo waxee coow suba coow ngoon te waxi guddi day rey góor. kooku sax dañ ko war a abandonné waxuñu ki nga xam ne naqari deret. waxuñu ki nga xam ne du fas te xàncal moromam amalul borom këram njariñ. yaa ko gis tànk bi dafa dox dox dox dox ba sonn ba mujj ku góor ki ay mbokkam daw ne kii suñ ko wutalut keneen suñ ko bàyyee ak kii rek aw fanam du gudd wala du xam bànnee xub sëy wala fa muy mujj du baax. moo tax man dey man bay Mbaye Ngoné fal man mi dox jaar ci daara sëñ Modou Habib xelu ba xejj moo ma gënal xaje ba xejj maman waaw merci beaucoup Safia euh, ñu leen di félicité waat rek indi waat ngeen thème de société boo xamante ni ku si ku ko déglu jàng man nag sama jàngat yaa ngi ma koy wax sànq euh, lan mooy indi abandon les lan moo koy indi. Hmm. parce que ñun de jigéen suñuy maye dafa am critère yu ñu tegal yu lislaam teg ci jigéen buy sëy hmm. naka nga war a comporté woo ak sa borom kër. Hmm. léeg-léeg daan naa koy dinaa koy faral di wax naan jigéen dafa war a doon euh, Seydatuna Xadija. jigéen sa jëkkër sa borom kër dangay ngay njëkk ñëw doon place yu yaay du place yu yaay boo xam ne da ngay ñëw imposé wu mais da ngay nekk koo xamante ne ba ba feeñoo feeñoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee sa Seydatuna Khadija moo ko dalal jigéen noonu nga war a mel ak sa borom kër njëkk mm-hmm. sooy dem tàggoo waxuma yëglu de mm-hmm. tàggoo loo soxla laaj ko su amee jox la su amul soo ko munee muñal nga muñal ka waaye euh, jigéen laa de mais am na samay moroomu jigéen yoo xamante ni ñuy defee du noonu parce que aussi góor bu sonn ñëw surtout góor bi nga xamante ni mëtal na yëpp man ki mëtal laay wax ki nga xamante ni yaa ngi ci kër gi sa dara manqué wul tu fais de ton mieux fexe ba mettre à l'aise sa jabar yaa am na lu mënut a ñàkk di dem doo yëglu sa jëkkër su ñëwee du am jàmm hmm. yow xam nga si situation jëkkër lu mu mën lu mu mënul hmm. nga nangu woon ko ba dugg si sëy bi hmm. ñu dem ba àddina di dox nga bëgg ñëw indiwaat leneen xam nga day xaw a doy waar ñàkk koo may jàmm góor ku ko ñàkk may jàmm mu dem feneen jigéen ji moo abandonné jëkkër ji si biir kër gi ndax parce qu'il y a minimum jigéen laa di sama moromu jigéen ñi laay waxal mais am na loo xamante ni dafa jiitu jigéen li war si moom da koy daf ko war a def jëkkër ji li war si moom mu njëkkee ka kër gi mën a neex waaye yow bàyyil li père di wax léeg-léeg naan ku sëy ku sëyul warul ànd ak ku sëy nanguwuma ko bàyyi ma ma àgg xam nga père dina koy wax mm-hmm. am na foo xamante ni loolu mën naa ne parce que ñu ñëpp ay jigéen lañu xam nu ban façon bu jigéen la ñuy gis. Hmm. ba pare wëlbatiku sa jëkkër takk euh, ñaareel ñàkk nga ko may jaam nga dem takk sa jëkkër xalaa am na fi takk sa jëkkër xala ba su demee sa wujju du fa mën dara. day am. am te ñun jigéen ñoo koy liggéey. <laughs> am na sas <laughs> am na. waxuma góor gi nga xamante ni maanaam ganaar la rek. gis na fi sëgg wëlbatiku ger su fee sëgg déedéet jigéen da nga ko war a yor yor ba ca war parce que suñ ku lay koy muur di la koy indi dan naan la jigéen lañ lay indil mottalil gi yokkal diine ji ah loolu laa xamoon ñu indi la jigéen nga war ko mettre daan dëkkal ko dëkkoo ko loo mën nga def loo mënul ngeen waxtaan si yow jigéen ji nga am sutura sa boroom kër may ko jàmm mais soo ñàkkee may sa jëkkër jàmm mu gis xale bu baax tabaarkalla macha allah am diine am yar am lislaam mu dem takk ko su ñëwee fii ñuy xëcc noppa du nu toppatoo ay yërëm duñ ko toppatoo. Ah. su demee fee ñu naan ko papa bébé. Hmm. ah mais ma foi. Hmm. nañu waxante dëgg rek oustaz. dëgg la wala du dëgg am na loo xamante man jigéen laa de. Hmm. xam naa mi ngi leen di surprendre mais am na loo xamante ne jigéen. du loolu jigéen. nous on est des sénégalais. on est des sénégalaises am nu ñu am fu ñu teg. man de yar ba ma sama way juri joxoon amaana amaana am na loo xamante ni sax si daayira laa ko jëlee mustarshidina wal mustarshida loo xamante ni yar naa ko sama bopp man am na loo xamante ni du warul jigéen man soo ma naree abandonné jigéen nga fase ma moo gën parce que ba pare abandonné dafa xaw a doy waar da ngay abandonné abandonné njaboot gi abandonné njaboot gi li nga wax dëgg de ku ku yàgg si teen bi baag fekk la fa li may wax man dama ko xam ku yàgg si teen baag fekk la fa gis nga sëy du bees bees bi lay neex am na sama goro bu ñëwoon wax ma ko may wax ak moom mm-hmm. mu ne ma maman umu nàngam sàngam ma ni ko déet neexagul de ma ne xam kañ lay neex bu sa doom yi màggee ngay xam lan la la doon wax mu ñël kon nag muy góor di jigéen mm-hmm. samay moroomu jigéen nag laay waxal jëkkër sang la respe waaye na góor na nga dëkkoo jigéen li war nga defal kaka ndax dëkk neexul ku ko xool ka nga bokkal ndey ak baay ngeen bokk dëkk rek dëkk bi neexul da di maslaa naxante seet noo leen di dëkkee mu rafet kon nanu rafetal mbir nañ ko rafetal teg ko si yar ak teggin muy góor di jigéen nag Safia moom dina dal sama kaw mais muy góor di jigéen. <laughs> même muy góor di jigéen góor dina abandonné jigéen jigéen dina abandonné góor na am na jigéen ñoo xamante ne ñuy jël seen jëkkër teg ko fa. <laughs> li may doo dem doo tàggoo di taxawaalu fu ne nga dugg fa. ñu togg taluñu ba pare naan day lijjanti bugguma jigéen buy dem di lijjanti. wallaay duñ togg. loolu. abandonné nga sa jëkkër. te xam nga jigéen ñi léegi te xam nga suñu waxee euh, abandonné dañ defe ne góor rek a abandonné jigéen mais jigéen day abandonné jëkkëram. dox rek dox rek. am na góor yoo xamante ne soo xoolee da ngay wóor ni ñi seen jigéen ñi jabar yi toppatoo wu leen toppatoo ndax taluñu leen dëgg la et c'est pas normal on est des sénégalais dafa am lu nu yaree am lu war ci suñu diggante ak suñuy borom kër yi. Hmm. nañ ko doxal. Hmm. waaw su la neexee bu noir. ba na wax lu ko neex. waaw. non non je ne dis pas non dama ne na nga hmm. mëtal. Ah. parce que suñu la mayee ni la dëkkal. Ah. sangal. li war def ka yow it ku jigéen mais am na jigéen yoo xam ne ñi ngi leen di defal lépp lu ne ñu def leen dugal leen dans un château di leen defal lu ne lu nekk mais ah loo ci gis après ah, topp am nañu toppatawul seen jëkkër du ah. jeex waxal mm-hmm. ah tey père ànd nga ak man de waaw mais mooy dëgg dama ko gis Safia ba dellu si dama ne liggéey boobu nga wax nit jàpp na borom ma ñëw ci yow wala ma dem ci bros. balaa muy crise negal ma dugal lii bala muy dem ndax. su papa yow mën nga ko wax nga dugal dara. en ah, kay ndax day am foo xam ne su ma rëccee dootuma fa mën a dem. ayca jàpp sa borom kër boobu liggéey ko ba nga xam ne su demee ci bërëb fële du fa mën dara. dëgg la. par jalousie la waaw waaw su ñëwee fii day mën dara. Mm. Sofia dafa am benn bis ndaw si jóg bi mu jogee dem wutib sëriñ ba mu demee ci maamun bi maamun bi ne ko ah. mën naa laa defal de mun naa wane ko waaye chart yii ma lay wax mu ne ah mu ne ko soo ko mënee baax na soo ko mënut ëllëg mën naa jur musiba mu ne ah mu ne ko fas gii ma lay jox fexeel ba bantub xat bii nga natt ko ci aw saakaraam soo ko ci lamasee yeew ko su firigo bi tàkkee nga dugal ko ci biir su fekkee ayewul ci yow mm-hmm. fu mu dem du mën dara day mel ne glace mm-hmm. mu ne ah ne ko su ayee ci nanga weer ba mu wow nga teg ko fu naaj am mu ne waaw mu ne ko waaye bu mu réer de. réer. jant bu réeree dootul man dara dina tële fii duniyaa ba fi laaxiratam na ko tële mu koy def noonu di ko def noonu ba benn bis nattub sunu borom ñëw mu aaye jël ko weer ko ci kaw seng gi weer naaj bi daal di tàng ba tàng ba tàng ñu jekki-jekki xiin wa ñëw ba xiin wa ñëwee yóbbaale fas nga daa ànd ak ngelaw. waaw yóbbaale parce que daal di taw ci kawam mu tooy te su bagage yi tooyee léegi bu kuur gi dootul mën dootul mën a jóg. fan la woon waaw kuur gi dootul mën a jóg. ma yow fan waaw yow yow yow toogal waay yow eh, eh yow toogal waay mu mën a am fan la. Prospère ñu déglu loolu sonn waaw <laughs> parce que dafa nekk yi nekkuñ di la dégg maa ngi ciy jégalu bu baax a baax ñu ñëw xool sa micro euh, ñu ñu dellu si waat si yow. ay ci <laughs> benn. <laughs> Safia. comme ni ko ñëpp waxee muy thème boo xam ne mun nañ si wax lu bari quoi mais dafa am loo xam ne Sénégal nañ si bàyyi xel. Euh, jigéen buy abandonné jëkkëram bariwul fii si réew mi. am na. mais bariwul. mais la plupart du temps Sénégal ngay gis jigéen sëy 40 ans si dëkk si kër. bés jot xuloo am. ñu ne ko fase nañ la mu am ñu ne ko génnal demal loolu Sénégal rek la muy benn góor yu bari Sénégal xam la lañ foog que boo dëkkalee dundal wodd rek c' fini yow amatoo beneen loo xam ne war nga ko def sa soxna. Uh-huh. boo dëkkalee. di jox muy lekk di jox muy kii rek. c' est fini. non loolu du sëy. waaw bàyyi leen ma rek ma wax loolu du sëy. nga ko. du du wadd nga. du yaa ngi koy jox muy lekk. du yaa ngi def nii yooyu yëpp. xaalis waaw. attention ak communication dafa baax si nit. waaw d' accord communication waaw. ak attention. si sa soxna. du da ko dem dugal si château. defal ko loolu si yooyu mais attention si sa soxna mu leer na la man sama jëkkër dafa am attention. Mm-hmm. mën nga ko defal loolu yëpp. ñëw si kër gi waxtu boo wàccee indi benn kanam goo xam ne sa jabar filul ne kii bëgg na ma di hésité wu di douté. di laajte ndax kii bëgg na ma. jigéen yu bari ñu ngi toog di ne man kii est-ce que bëgg na ma. parce que góor yu bari au Sénégal xeemel la ñu gën a mun. takk naka lañ koy waxee. xeemeem xeemeem la ñu gën a mun a takk. deux mois trois mois quatre mois un na dootoo leen saf dara. ñu ak si bëri dëgg bëri si réew mi. jigéen de ku dem ba di ko takk xanaa bëgg nga ko. non ak loolu nga yaakaar mais ñu bari dañuy xemmem boo leen laajee ñu ne la sëy naa dix fois fase naa dix fois tas yooyu kan si si jigéen ji ñooy am problème non non. parce que dañu nekk si réew moo xam ne comme ni ko nit ñi di waxee góor yi ñoo fi cher. jigéen ñi lamba fi te loolu tant que góor yi ñu ngi koy def seen xel je crois que day am problème ma mos dégg sama benn oustaz ma bugg ko trop mu ne góor bu am benn jabar yambar nga Sall li Sall non man waxuma tur. <laughs> ma ma ko waxoon. Ah, bul tooñ Oustaz Alioune Sall bu ñuy seetaan day seetaan émission tout le man de man waxuma ki ki may waxal peut-être dina wax lu tax mu waxoon ko nee na góor ba am benn jabar daal mu la wax dëgg la te la parce que bu fekkee Oustaz Alioune Sall Ndaw lu la wax dëgg la ma bu fekkee dañu toog ba loolu góor dégg ko mhm. mais góor bu amee ñaari jabar pour moom même bu fekkee comme ni ko oustaz waxee mënu leen yemale day ne écoute jigéen dafa yomb Sénégal man damay takk damay takk di dem loolu mooy indi dem ba nga xam ne jigéen bi day dem ba sentir ne kii day takk di takk mais bëgguñu ah, ah parce que am na loo xam ne ñeent góor yu bari xam la ñuy def ay dañ ma dañ ma déddale c'est faux ah déddale amul un pour cent lay doon ñu si bari dañuy defi seen i ay tuuxa duuna ne non dañ ma déggale sama kër sama kër daal day mel ni su ma fa duggee sama tànk yi day day lakk teyu ma ko ñoo ko tey <laughs> mënuñu fi toog di wax dañ leen déddale déddale déddale déddale déddale te loolu nga xam ne chaque fois ñu koy dégg dans les familles mais attends yow bu ñu la déddalee lu loxo mun loxo mun na ko dindi bu fekkee dañuy wax rek nen ngeen ne am na lu loxo mun loxo mun na ko dindi te man yooyu ngeen baal ma si yi si ëpp gëw ma si kaw daal laa gëm lu mu ne lii dina la dal dina la dal gaw ma ko gaw ma ay déddaleeg gaw ma ay takk xala gaw ma ay boo boo leen di sëy nii léegi ñu ne góor gi yow da war a def danga war a simmeeku toog waroo sol tubéy jour boobu dañ parce que boo solee tubéy mun nga fa ja mais attends ñun on est dans monde au Sénégal fan la ñu nekk ñun ñun ñun ñun pourquoi ñu bëgg a jël affaire yooyu def c'est des réalités mais réalité naka kan la nit mus na la wax ne 17 yow mu waroon la fekk si jumaa ja. bu amul woon rek defal naa ñu ne bu ñuy takk ñoom ñaar ñëpp dañu waroon ñëw si jumaa ja toog ku ku góor ki léegi boo doon dem jumaa ja wala da ngay këfalu rek noonu dem toog lañ la fay takkee néegu yàlla saa ci ñëwaat néegu yàlla naka la la fi nit mu ngay def lu bon nga mu fekkoon la saa dina ko dina ci xam ne bu ñuy takk dañuy am na loo xam ne dañuy toog am na loo xam ne si abandon am na de et c'est pas góor am na même lu la sa jabar jabar jabar def nga ne danga koy abandonné di koy tong si kër kooku un vrai homme góor waroo ko def mm-hmm. parce que bu fekkee sa jabar dafa am loo xam ne mi ngi la koy def nga woo ko benn yoon waxtaan moom déggul nga woo ñaari yoon waxtaan ak moom déggul mu leer na ne yow yaa ngi mais kii li muy def àndu si nga bàyyi ko mu moo gën parce que kooku faskeenu la séyal nga bàyyi ko nga fas nga fase ko nga fase ko moo nga toog di koy souffrir loo si kër parce que moom souffrir boobu nga koy def mun na jur leneen te mhm. peut du doon loo xam ne yow moo la gënal léegi su nanguwut a fase nag moom ndaw si dina fase par force c'est am na ñuy fase ñu toog ne denc non munoo toog sama kër. Ah. ma am attention si yow. waaw ma lay defal lu ne. waaw kenn ñeewu la. waaw sa famille ñeewu la kenn ñeewu la. nga ne nag dafa am loo xam ne par force yow da nga ma koy imposer sama kër. am na no déggoo li ma la su boobaa fase dina am par force di nga génn si kër gi. mais d'accord ma nga ne yow def nga lépp danga koy tongoo même bu ñëwee di lay nuyu nga nuyu ko non. góor dafa am noo xam ne nga war a agiré sa kër munoo nekk sa kër munoo nekk sa kër di tongoo teg sa jabar di ne ah def na ma lii dafa am nu ma koy fayee léegi nga takk keneen yaa ma dégg waxoon takku ma keneen dama ne balaa may takk keneen sax ah. moom dama koy fas bu fekkee def na ma loo xam ne man leer na ma sama digganteeg yàlla nag li war si moom yëpp maa ngi koy def mhm. mais moo am jikko boo xam ne mënul nekk ak man mhm. ma may ko baatam mu dëgg la dëgg la waaw ba tey l'autre fait waaw d'accord muñal dafa am fu ñu koy waxee d'accord nga wàcc que tamit jigéen boobu ñu abandonné ko si kër mu nar fa toog di muñ di am goiat di am cancer ñuy ñëw ndànk ndànk ñu ne ko rek toog fa beaucoup def femmes dee nañu si muñ fii Sénégal mhm. muñal ak lan nga war a muñ muñ am na am na jigéen yoo xam ne dañu war a muñ ak lan nga war a muñ si sa sëy du question sa jëkkër day ñëw comme nu ñu wax mu jël premier acte ne daf lay abandonné ne bu wàccee quatre ngeen nekk si kër gi du la tudd du la xool bu ñëwee du lay jox dépense du ko teg sax si loxo daf koy teg si taabal bi nga laaj ko nii du xam nu mu lay wax nga ne kooku da ngay continuer toog di muñ parce que am ngeen njaboot certes am ngeen njaboot mais njaboot gi je crois yéen ñaar ko moom ni muy bëggee ay doomam yow kami ku góor kee ku jigéen ki noonu ngeen a bëggee seen doom mais mënuma d'accord ñu ne la toog fa rek xaw ma ni ngeen ni ñu koy waxee loo xam ne boo fa toogee muñ ko ni nga ko si ëllëg muñ am na de new ma muñ am na bu ma kenn wax loo après mais ak lan nga jigéen war a muñ si néegu sëy mm-hmm. parce que ñu bari toog nañu du muñ loo xam ne. Mhm. xam nga après fan lañ jëm. Mhm. belleer mhm. wala wala wala wala wala wala yow. bon waa muñ amul toog nañu muñ ko muñ ko muñ ko ah. muñ ko muñ ko. ba loolu indi leen. ay loo xam ne feebar yoo xam ne metti na ba mënatuñ ko supporter ñu dem seen yoon. muñ amul àpp. muñ dafa am àpp ak loo war a muñ. loo ba la ngay muñ jeex. wala nga muñ ba li ngay muñ nga génn. dara dàqul si këru àdduna. muñ amul àpp. parce que sëy day neex ah. binduñu fenn si àdduna. Hmm. que sëy da nga fa war a toog par force di koy muñal loo xam ne àndul amul. àndu ah, toujours mu neex de. sëy dafa war a neex. bu fekkee sëy mariage déedéet sëy war ta <laughs> bu ñu takk. dafa war a neex. déedéet du toujours amul tax ma wax loolu. Ah. lu tax ma ne dafa war a neex. Ah. mooy bu fekkee yéen ñaar. waaw ku góor ki. Hmm. mi ngi def lu war. waaw ku jigéen ki. mi ngi def lu war. mooy règle yi. sëy boobu dafa war a neex. mais bu fekkee am na koo xam ne ni ngi siy dëng. Hmm. ngeen xool ni ngeen koy réglé. ngeen xool ni ngeen koy réglé. waaw boo leen na nag mu mënu leen ko réglé. waaw mais borom bi moo ko bind. soo demee ba la nga amoon amatoo ko borom bi si lan la njëkk a bind soo demee ba la nga amoon amatoo ko. fase la ñu njëkk a bind. soo demee ba la nga amoon amatoo ko. tawuloo la fa di lay ne kii da ko war a suspendre kii da ko war a pendre kii da ko war a wan yow yaay góor kii da nga wan lii ak lii ak lii. soo demee ba la nga amoon amatoo ko. wala la nga mënoon mënatoo ko. waaw soo ko mënul muñ nga dem. soo ko mënul muñ nga dem. jeex na. parce que man d'accord uma l'islam loolu la la wax non parce que ñun bu fekkee dañuy topp rek charte ñun bi nga xam ne charte la ñuy topp bu fekkee am na sànq wax ko na nga ne na jigéen ñi doon comme soxna Khadija mais est que am na góor yi nga xam ne doon nañu comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que moom barewul ah donc pour jigéen ñi je crois doon soxna Khadija il faut ñu am ñu mel ni ku sell ki yombul de te ku sell ki moom pour nga mel ni moom eh. <laughs> loolu dina jafe dañuy rek dañuy jéem di roy si ay jëfam. mais Sénégal nañ ko waxante te de am na loo xam ne moo fi nekk un nom waroo toog sa biir kër. dina yaa ngi tongoog sa jabar doo ko tudd doo ko taas. am na fi ñoo xam ne ay at ak seen doom ci kër. seen i doom nekk ay mag ñuy ñuy toll ci sëy te du ñu wax. mais loolu naka la la sa doom yi di xoolee en fin de compte il vont se dire man ban genre papa laa am parce que doom boo gis am na fu mu teg ndayam ils grandissent avec la rancœur. dafa mel ni la même chose li ma wax sànq jigéen boo xam ne si biir kër yow sa jëkkër franchement il est parfait. Mm. mais yow nga ne bëgguma baax. day am moo tax ma ne la 1 pour cent la si jigéenu Sénégal <laughs> donc ñooñu tamit. nañu xalaat ba reflet la ñuy jox seen doom. d'accord Ben dinaa ñëwaat euh, ci yow léegi ñu bàyyi noonu. Euh, ma ma ma jox sa petit frère bu ñëw tuuti jox sama petit frère mu. vrai à entendre Benoît parler. j'ai comme l'impression ko dafa am benn bureau de sondage il donne ses pourcentages il non mais ça veut dire quoi ça bu la réalité. c'est ta réalité. la réalité ta réalité. fii ngeen bëggul dégg. kooku remarque la woon. ma doon sànq wax ci introduction. Mhm. ne dañuy waxtaanee lu complexe. parce que borom kër bi nga jàpp xam ne yow yaa ngi koy jugé xamuloo sax yow lan lay dund réellement ba war ko jugé. Mhm. très honnêtement. xamoo ko xamuloo ko tu ignores exactement ce qui se passe dans sa maison. Mm. ce qui se passe dans sa chambre. Mm-hmm. lan moo nekk vraiment ci ki nga xam ne moom la ko yàlla booleel. Mm. exactement tout à fait tout à fait oustaz euh, wax effectivement ci forme abandon yi nga xam ne teguwul lu dul ci caay-caay. Mm-hmm. waxuma boobu man bokkul sax si ngor à mon avis. parce que bu booy booy labat jigéen ba toll fooy jàkkaarloog woy juram mu war la dénk ki nga xam ne ci moom la jóge dafa am lum lay dénk kii kat euh, xataluma saraxewuma ko mayuma ko euh, may euh, comment dirais asaalewuma ko lambul dafa fekk ne dama ko mënul jariñoo moo tax ma dénkal ko soo mënatul delloo ma bul dóor bul saaga bul xas bul gaañ bul damm boo mënatul delloo ma nga d'accord ci pour man boo amee beneen attitude boo xam ne laluwul lu dul ci caay-caay damay dox ne rafetluwuma ko loolu mooy li ustaas ubbee ma nangul ko ko it ndax am na fi yow nga jël euh, Adja euh, soxna Umu wax loo xam ne danga ko wax yow en tant que jigéen en tant que mère en tant que sœur dama koy faral di wax ci plateau dafa am discours boo xam ne suñ koy waxtaanee ci jigéen ma dégg jigéen di ko wax dafa may daf may combler ndax bu parler en connaissance de cause encore une fois parce que man gëm naa ne li oustaz wax dëgg la mais gëm naa ne aussi wax nga ko sànq et c'est extrêmement important loolu la Benoît di xëy na réer mbir jigéen a ngi abandonné jëkkëram ci biir këram. Mm-hmm. loolu ba noor du si teg bëtam moom. Mm-hmm. am na c' est de c' est de petit comportement yoo xam ne. am na am na carrément abandon la. Mm-hmm. mais xam nga ku ñuy gis. ki nga xam ne gëj na këram moom. kooku la bosam la feeñ. boobu la bos kooku la bosam feeñ. mais comme li ko wax yow. et ci pa ma am nag beaucoup de respect ci sa intervention ndax jigéen mooy wax. <laughs> honnêtement. abaan ji jigéen nañ jabar a ngi abandonné jëkkëram ci biir këram. ay at ay at te dama ko gis man. ah kon man li ma gis man amul. déedéet non j'ai pas dit ça. si loolu moom sax da nga ne ndax man xam naa li jigéen. nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ndax xam na ndax xam nga bokkul ak li nga gis amul. waaw d'accord da nga da nga commencé sànq ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. je te demande cette même remarque ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit dama ne soxna si moo ko waxal boppam ñi ngi abandonné borom kër ci biir këram. mu moom ko. ñàkk ko. Mm-hmm. Euh, comment dirais di fa joxe dépense di def lépp. Mm-hmm. boo fa duggee yaakaar ne gone yar lu war la. Mm-hmm. dugg naa ci kër ba tàyyi fekk ko fa. wallaahi gis naa ko. billaahi. da ngay dugg ci gi rek xam ne ki dañ ko am. wallaahi day am. gis nga yaa ngi wax sànq di tooñ père naan. nekk ci waaw doo doo comprendre sax c'est-à-dire boo duggee ci kër gi. Ah. da ngay yaakaar ne sax kii kii da ngay xool da koy xool rek xam ne kii. day toog fi mu toog ñu daax <laughs> ba kenn du ko tàggu comprendre sax. kenn du ko tàggu. parce que exact dama wax ne kenn du ko tàggu. non yaa ngi tooñ sànq père di wax waxi anecdote. man yónni nañ ma takki jabar. Mhm. kooku si la yéemoo ci man ba léegi. Mhm. ma dem fa dugg toog. wallahi azim bi ma xoolee situation kër gi mooy maire yooy nga xam ne ñoo te ñoo ñuy wax naan sama jëkkër fii laa ko def. Mhm. dëgg la. billaahi wallaahi. paa bi xoolal comprendre wul sax. <laughs> bu waxtaan bi jollee sax la preuve bi ñu dugg see sax ji ku jigéen ke moo ñu teeru ñun. te ay maire yu nañu doon. bënn seen bakkan benn am benn place bu ñu ko wutal boo xam ne fa lay toog. <laughs> boo nee jàkk waa tonton na nga def. à peine du la sax fay parce que sax li maire bi moom mooy diriger. waaw. day jalonné bi ma ñëw ma ñëwee mu wax ma. ma ne ko ah, leen de maa ngi la ko yëgal. fii nga nu yónni woon de xaw ma xam nga xam nga xamuloo. Hmm. dugg nga foo xam ne sa sëy bi bu guddee fan dina ma jaaxal. Hmm. waaw ndax jigéen ay waaw. pros maanu woo. ndax loolu dañ koy yëg. Ah? yow yaa eh, maandu. dugg si kër oustaz oustaz Prospère maanu woo. dugg si kër 10 xam ne góor googu ko fa yeew. waaw dañ ko yeew ndax mi ngi mi ngi toog mi ngi yeew ko. xam nga xam nga boobu lu mu mujjee. <laughs> xam nga lan la mujjee. xam nga lu ko tas. wallahi azim tabaski dafa jot yaayu ndaw si ne ko sa jëkkër jël leen xar mi ñëw tabaskee ci kër gi kooku ne ko non du ma am sama papa am sama yaay am sama kër gàddu sama xar di tabaskee sa kër yaay dëgg yàlla yaay ji gàddu doom ji yóbbu këram moom mel ni ko dof bi muy wàññeeku ci ngoon gi tabaski bi mu ñëwee la ko demal sa kër yaay ga nga tabaskee fasadaa la fii ma toog moom xar xaru ku góor ki la gàddu yóbbu non yaay jey ñëw jël doomam yóbbu ah ndax parce que nee na jëkkër ji jëlal si xar ñëw tabaskee fii maanaam mooy mooy autorité bi yaayam am ci papaam la bëgg am ci goro ku ci kër exactement ku dugg ci gi autorité boobu la ñu am ci yow nga nangu ko nag muy abandon bi ngay wax doo tekki dara ci biir kër gi nga ñàkk ko nangu mu demee nii sëy ba 4 mois la def xaw ma 3 mois le premier tabaski la première fête de tabaski bi ñëw ca la tey ba tas euh, procès benn anecdote parfois di nga dem foo fekkee waxtaan ñaari jabar jigéen am fa place Mhm. kër goo dem fekk paa ba toog meer ba toog ñuy wax waxtaan mbirum jabar. ak fi bëri nag dawal ak fi bëri sama jëkkër fii laa ko def. waaw mi sama laa ko fas. ak fi bëri nga ne nga ne nga ne yegg yeggaaral. lu kon kenn du xam looy sax. xam borom kër ngay sax kenn du xam papa ngay sama jëkkër ja bul ne sama sëy ba. papa ba nekk dafa neex bu ñu ngay wax. Oh. ndax sëriñ la ko may foofu soo fa tolloo bul ne sama sëy bi ak mbëggeel gi nu ma bëgg danga naan sama sëriñ ba. d'accord Prospère nga ni. ma ne. Hmm. abandon bi ajaa wax ci jigéen ñi koy def seen biir kër. Hmm. loolu lay foofu lay appesantiru man. am na de am na de. pour la bonne et simple raison. Hmm. comme ni ko père wax na ko sànq. lan ngeen di woowee abandon sa biir kër. <laughs> mooy mooy am sa kër. ñàkk ko tabax ko. takk jigéen dugal fa njaboot ak moom. Hmm. àdduna doxa doxa dox ba biir kër gi yow sa bopp yow mi ko moom tekkeetoo fa dara. waaw dootuñu fanaan ak yow. parce que xanaa xamoo ne. dootuñu fanaan ak yow. xanaa xamoo ne li nga xam ne. am na sax da ngay dugg ci biir kër sax. waaw la femme prend la décision volontaire. en séparé wu séparation de dootul fanaan ak yow. bu yee kooku bu yeewoo dem da nga yaakaar ni moom jabar ci ginnaaw lañ fanaan. paa bi di jooy barke borom Tuubaa Mbàkke paa bi di jooy. non non non c' est ça paa bi tëlewul. père bàyyi diriyanke nag de grâce vraiment. non non non bàyyiwuma dara xam naa dama la lay tontu diriyanke lay doon. dem yilif kër gi dicté ay loo am bënn ñeenti la fi daal di bënn bakkanam rafet ba pare góor gi dooleem jeex na léegi tële na mën nga nu teg feeb mair bi dafa beru néegam góor gi fukki xelam ak juróom-ñett xalaatul dem sagaru tay lay doon ci biir kër gi sagaru tay wallaahi am na boyal yooyu wala kayitu boyal yooyu ah. bu ma tudd diriyanke parce que dama ne bàyyi li bul wax ko rek parce que deuxième point bi may wax mooy ah, du ma wax diriyanke waaw moom moo lay tooñ nit jóge na këram parce que dama dégg dama dégg ci émission bu dul benn du ñaar ah? sama grand frère Benoît ne Ah bul dóor bul saaga bul gaañ bu la yàlla bindee sax nattul la yow jabar ju naqari deret heure bu yëkkatee baatam génnal sa kër nga dem moom mi dégg naa ko wax ko ci plateau. nga génn sa kër waaw wax na ko mi ngi nii di ma maa ngi nii. waaw yow ma wax waxu kéwaay. ah non mënu ma ñàkk bañ wax ak moom parce que bu ko weddee ma waar ma waar ko léegi. génnal nga dem. waaw loolu la wax. parce que moom dem moo gën dóore moo gën xas moo gën saaga. moo gën non dafa ne nga génn dem doxantu ba sa énervement bi wàcc. génnuma sama kër doxantu yu sama kër laay waaw ma ne. soo dëkkee ci heure bu madame yëkkatee baatam nga génn sa kër ama ah, ci génn mu ndax ndax sax sax nga jëm mujjee. bu dee jamono yi bu dee jamono yi wul fa wax loolu lu tax muy génn loolu su boobu eh, loolu moom bi wax ñu toog benn jour di wax su dee couvre fa ma ne ko gi de bu dajee moom dañ lay ramal da nga mën a dëkk ci génn dama ne yow yaay génn moom boo ñëwee sa kër coow nar a am. waaw nga nar fa toog di dóor sa jabar wala toog fa di tàkk sa muy wax ngay wax. muy wax ngay wax loolu. yow yow Sofia nga ne ma ba mu calme damay damay yeggale rek ñëw waaw loolu mun na ne waaw. foofu laay waxee. balaa ngaa def Sofia ah, déglu Sofia def looy rëcc. déglu Sofia man li wax dama cee d'accord soo ñëwee fekk sa jabar di wax wax ju bëri nga nar a nekk ak moom di muy wax ngay toog. waaw ci sa territoire. waaw nga génn bàyyi ko ba mu calme moo tax ngay génn sa kër. non non non père même su dee sa territoire. doxantu rek doxantu ñëwaat pour may ndaw si su dalee nga dellu si ngeen toog taabale nga teg ko si mag waaye man de lii fii laa ko mos a gisee jigéen ah, di wax di wax di wax ba nu ne na ku góor ki génn domicile bi. non da ngay dem pour un laps de temps tu tu vas te promener. cinq dix minutes sa ba dal. yow parce que yow sa wàllu bopp mun nga def loolu. kii dafay toog soo ko nee un mu ne la deux. da nga fay toog di xeex ak moom kii di damm loxo nee naa day lay laaj tontul da nga fay moom. loolu nee na moom day damm loxo. ayca Prospère ñu bàyyi la nga continuer. Ah, ak diriyànke ngay jaay maman euh, maman Umu. góor am na comportement wu abandonné këram. fekk jàmm lay wut. Mhm. wallaay. jàmm lay wut. dëgg la 18h ñëw minuit. parce que fekk jàmm lay wut. jàmm rek takk na jigéen laal na point bu am importance bu nga taxaw ci Prospère. mooy ban ci ñi nga xam ne. dañuy liggéey c'est vrai di liggéey bureau. Mhm. war a waat 17h balaa ñuy dugg seen kër 22h 23h minuit nga xam ne dañuy lekk rek tëdd nelaw. parce que jàmm la ñuy wër. fa laa jëm si parce que dafa bari ñu amul jàmm fañ seen biir kër. wallaay loolu la ñu wax dañ ci dañ leen di wax 18h. Mhm. il faut ñu taxawaalu ba minuit ndax gaynde gi mu fiy fekk mën a nelaw. merci beaucoup sinon bu nu accès du nu am jàmm. dëgg la am jigéen ñoo xam ni mhm. sa kaw bopp bi la ñuy toog teg lawal ak fii na ñuy toog fii lay fatt la am na jigéen ñu doy waar de jigéen laa de parce que euh, foofu laa doon wax. ñëwal nit nit abandonné na. fekk na effectivement jàmm lay wut. wallaahi. ndax takk na soxna njaboot na ak moom te bu ñu waxante dëgg rek yàlla tax dafa bëgg jabaram ba tey. ndeysaan amour. dafay am parce que nit nit ku nekk nag. am na ku la yàlla dina too mhm. mu neex la mu naqari la moom ngay sentir. loolu dafay am. Mhm. nit abandonné këram. wala en tout cas avoir un comportement qui semble à l'abandon fekk ne jàmm lay wër jàmm lay bëgg ndax pour pour tout simplement parce que nit dafay bind aussi mu nekk nitu jàmm ah am na góor ñu mel noonu. waaw autant il y a des hommes am na ñoo xam ne loolu lañ def. baax waaw du ñu wax dara. à la limite même. dañuy faral di wax ne. Mhm. boroom kër bu mel noonu. bu tàkkee boo deful ndànk loraange say doom lay doon. Mm. ndax loo ko tegoo mu tegu ko. dëgg la attention. li may wax rek mooy dama bëgg a wax ne. c'est bon à savoir li ñuy ah c'est bon à savoir dama bëgg a wax ne li ñuy waxtaanee ko yamee rek ci góor abandonné rek baaxul du nit ku baax du def nangam rek dafay dafay dafay yomb nañu creuser dugg ba ci biir ndax lu nekk rek dañuy wax ne la ko yëngal la ko lu yëngul la ko yëngal ko ab doole. cin baxul de soo suufam moo tàng. cin boo ko jëlee teg ci gaz taaloo gaz bi cent ans def ci ndox du baax. c'est normal parce que taaloo gaz bi. exactement. <laughs> kon kon kon kon kon suufu ma tàng. Ah, mais mais cin baxul. parce que dama teg sama bët man xarit mu takk ñaareel. abandonné wul abandonné wul këram parce que dafa takk ñaareel. parce que jabaram moo ko waxal carrément daw ma bougé wu ma daayu ma mais dugg nga ci kër gi mooy mandargal naa la. màndargal naa la. nga gëm waaw nga gëm ko xayrun nga ñàkk ko gëm xayrun. mais kër gi teg nga fi sa tànk mooy màndargal naa la waa kooku kenn du ku ko ku ko gis ñaareel ba deux mois fekk mi ngi dox effectivement lu ko réconcilier ak aaw bi dañ naan dafa ah dafa takk ñaareel abandonné. dëgg la de. Ah, mais billaahi Benoît. waaw loolu moom di nga jël sa précaution. mais je te exactement. Ah. merci ba ma ko nangulee nee naa la heure bu ma bëggee du ma nammee toog ci télévision pour di di wax nii ma bàyyi ko damay teg sama bët. léegi ñuy wàcc 18h yegg minuit nag. wàcc 18h yegg minuit mooy loolu ñàkk jàmm rek. c'est-à-dire nit la koo xam ne yàlla nattu na ko ci naam nattu na ko ci ay doomam. ku ko def ci mais boobu nag dafa am deux catégories. waaw nañ bàyyi prospère mu ñëw maa ngi. xamoo ne maa ngi ñëwaat gëstu si yéen waa droite jigéen jigéen traité na jëkkëram. doom ci biir këram parce que xam na ne juróom naa ay doom yoo xam ne dafa nax ci ay doomam. Hmm. tey ma teg ko loo xam ne xam naa ne 165 ans. li ma neex ci kër gi moo fi am ndax du mës a du mës am na ñoo xam ne sax noonu la ñu def heure boo nee fase mun la damay buub samay doom parce que boobu natt nañ ki leen yàlla boole ba xam ne dafa natti doom mm-hmm. mooy li ma wax yàlla mooy nattoo nit loolu loolu pour éclaircir Benoît non buub doom du noonu nag am na de oui buub doom du noonu. <laughs> voilà mais dama wax ne. tu ne peux pas m'éclaircir loo xam ne xam naa ko. buub doom du noonu c'est pas facile comme ça. c'est que il y a des gens sama sama grand frère nee na. Hmm. mën naa comprendre góor bu takk jigéen bëgg ko ba faible. loolu du problème moom. loolu du problème moom de. du ma ko waxal lu mu waxul. waaw moo ko wax mun naa bëgg jigéen ba faible lu tax. yow mu jox ma sama cër bi nga xam ne maa ko. kon xam kon xamul luy faible yow. si si si yéen a xamul luy faible xamul tax xamu leen luy faible. sànq li ngeen di wax jigéen ñi ne dama jël sama jëkkër def ko fii waaw yow boo jëlul sa jëkkër def ko fii kan ngay jël def ko foofu yow bëggoo ko la dog de non daf ko téye ci loxoom c'est-à-dire moom moo ah, loolu bu la ko sa jabar deful kan la koy loolu dafa mel ni da nga ne décision booy jël du décision décision bu ñuy jël maa koy jël moom il n'a rien à dire il ne fait qu'exécuter kii loolu la bis bu amee problème mu jigéen boros boros waxal barke borom tuba bis bu amee problème mu jigéen su amee problème mu jigéen <laughs> walaay dina def c'est-à-dire du ko attan du ko attan parce que boo dégloo euh, discours Benoît mm-hmm. soo ma defee nii soo ma defee naa bu la defee naa tu es irresponsable tu es nangam je préfère bàyyi ko mu dem waa ki ñu abandonné ñaari at lu ko teree ñaan baat moom may naa la baat wala oo nga naa ah, mën a toogal biñ ma lay may du lii moo taxoon may ma sama baat ma dem message on échange nga ne Safia dafa laajte góor yi wàcc 4 heures ñibbi si 10 heures. Mhm. man maa ne ils sont irresponsables parce que jabar boo xasee ba takk ko c'est pas la femme seule dans la maison y a les enfants. tu dois savoir boo wàccee 10 heures du sa jabar rek nga fa war a fekk tu dois venir voir l'état des lieux ak say doom. jabar mënul tax nga wàcc 6 heures daw ba 10 heures ñëw di ne no su ma ñëwee sama kër damay am problème dafa tàng dañuy wax. am na où sont les dans tout ça. am na de non attendez parce que loolu lay wax góor boobu man awma habitude sax nit di wax ma ciy dugg damay bàyyi ba sama parole ñëw mm-hmm. mais souvent yow sa gis-gis day mel ni bokkul ak gis-gisu nit ñi mm-hmm. parce que bul xool rek naan lan mo yow man damaa gis koo xam ne bu wàccee du ñibbi. mais pourquoi nga naan loolu amul. ma dama ne néew ma amul de dama ne c'est irresponsable. wàcc xamoo lan lay fekk këram. mais lu mu fa munti fekk ba tax mu bëgg a yéex a àgg mais il est irresponsable yow ak ñëpp yemoo leen. non non non il est irresponsable bul sa bopp comme ñëpp. je ne peux pas dire sama ah. kër. ma fay joxe sama mais yow souvent da jàpp ni ni ngay dundee. wala sa gis-gis. wala li nga xalaat loolu moo a or que am na koo xam ne yow moom bokkoo leen. si tu descends à 16h 17h 22h ñëw autre mot parce que sa jabar boobu nga ne. boo fa ñëw daf lay indil ay wax mais tu ne vas jamais rentrer tu ne jamais xam sa kër nu muy demee tu ne jamais xam say doom lu ñuy def bu ñu wàccee mais ça c' est grave. d' accord bàyyi Prospère mu mu mu yeggale tontom. waaw parce que ki nga jàpp ne su ma su ma wàccee telle heure yegg sa telle heure sóoraale wu xale yi mooy ki mu leer ne bu yeggee ca kër ga njariñam du feet xale yi ndax jabaram a koy xaar ci ay woo xam ne à la limite même c'est pour épargner à ses enfants certaines scènes. Mm. attention benn. dinañ am attention. Mm. wallaay am na. épargner ses enfants fitna saagante doorante ak xët-xët xëy na sax moo ko jubal ci loolu parce que nag dañuy faral di wax ne ku nekk yaa xam ne ngay tojee sa bopp jinax mais kooku ça ne va et certes. comment résoudre ça. àdduna sax continué wul. waaw non comment résoudre ça. waaw comment moom laa fa laa jëm si. ok moom mën naa jàpp ne. bu proche daanee ñu jël téléspectateur voilà mën naa jàpp ne. Mhm. lii kat stratégie la boo xam ne parce que ku nekk comme ni ma wax munoo xam ki nga xam ne moom la yàlla booleel mënu ko ko gën a xam yow. Mhm. stratégie la boo xam ne su ma ci boolee effectivement di xool ay samay suñuy suñuy suñuy kilifa di xool ay xaritam di xool ay ndànk bës dana mës a ñëw mu wàcc su ma fay wala aussi. nit nit guddi euh, xëy na liggéey dugg këram parce que tout simplement ma ngay éviter ay comme ni ma wax njaboot gaa ko tënk bëgg na jabaram parce que xelam nekkul ci fase mm-hmm. mën na nekk mu am stratégie boo xam ne mooy lii kat comme ni ñuy wax ñoog euh, xëcc bu dogul dikk tout temps nag sa tout temps essayant gis ah kii kat xaritu Benoît la xaritu sa Sofia la kat Badab Diallo la xaaral ma def nii kat est-ce que dañu ko defee du gën ba keroog dal di am parce que dañuy faral di wax ne buy taw kenn du fobeere mais ñaar a ci mën a nekk su ma yeggee soxna si dina ma attaqué attaqué boo xam ne xale yi sax effectivement boo defu ndànk si traumatisme lañ jëm wala kat xaaral ma def nangam parce que su ma yeggee xam naa sama bopp xam saa sama bopp tey jii bu ma duggee ca kër ga kat bu ma defee nangam bu defu ndànk dinaa def safaan mais yooyu prospère laataa ñu jël téléspectateurs yi def si bëri euh, Benoît maman euh, parce que wàcc rek ñibbiwoo sa kër parce que feneen fa ngay dem amaana amul la benn njëriñ mais da koy def juste pour wut jàmm léegi foofu nag yenn saa nga yoo xam ne dañ lay may jàmm bu fekkee da nga nekk koo xam ne franchement euh, kilifa nga. Mm. ñaari fan ñetti fan lañ lay may nga takk ko andi ko ci kër gi mu toj kër gi. <laughs> Mbakande jàmm la bëgg. bu ko mënee am su ko mënee am boole ci ak jaamu yàlla. ah leen wax ñaari góor ah, am na ñaari góor yoo xamante ni kenn. wuy leen Safia. kenn ki ba la topp yow mama ummi. tax delluwul si kër gi. Ah. am na góor yoo xamante ni. Hmm. seen bakkan la ñu topp ba ñu. Ah, dem seen kër. dama ne dama lay jox benn anecdote la wax. dama lay jox benn anecdote mhm. am na benn waay joo xamante ni dafa tàmmaan su wàccee rëcc su wàccee rëcc su wàccee rëcc mhm. toujours jabar ji def na lu ne wax na lu ne ba ñu woote conférence ba ñu toog waxtaan xam nga nu waa ji def mhm. toog ñëw ñibbi si vendredi toog ba si guddi gi de ñu ne gaz bi jeex na mu ne maay jëndi gaz jël gaz bi ne du ma jël sa oto bi taxi laay jël. day jël taxi du wuti gaz. dimanche la ñibbisi. dëgg la lu mu doon wut moom. waaw dafa tàmmoon topp bakkanam rek. kii Sophia waxul loolu Sophia dafa nekk ci biir ñàkk jàmm bi ngay ñàkk jàmm. indi keneen di génn di dem di wër di làqatu ak di bokkatu. Ah, ndax munoo dem ba daje faak loo xam ne mën na laa këf lu ëpp jàmm lii. da lay këf làq la. waaw loolu la la wax loolu la Sophia wax. wuy leen Sofia ci li leen wax. mais yow yaa ngi eh, génn bokkul ak li li mu wax Sofia li mu wax non non pareegu ma. Ah, ki ñàkk jàmm ba génn si biti ba gis jigéen bu ne ko mu takk ko ah. indi c'est normal. li wax c'est normal. Ah, ah loolu lay wax nag. parce que yenn yenn saa da nga gis góor goo xam ni. bi mu takkee ñaareel ci la commencé dund. waaw ah <laughs> loolu. yenn saa yi. di génn di dem di toogi feneen. loolu la Sofia wax muy leen si biir xuloo bi. xam nga dafa yomb. xam nga Sofia. Uh-huh. am sa jëkkër. Uh-huh. taloo koo toppatoo. non non amoo jotam. faale woo ko. oustaz kenn waxul loolu de. mu takk koo xam ni moom sëy ko tax a jug. ko xool sa jëkkër yi xam ne kenn waxul loolu. oustaz kenn waxul loolu. am na ñoo xam ne ñoo sopp seen jëkkër. am na ñoo xam ne anam yi nu fekk seen jëkkër ñoo ñoo ko jëlee fa mu nekkoon indi ko tey ci beneen niveau. wallaay faal wallaay faal ba ñu mën koo xool. wallaay faal souvent nag aawo bi loolu la ñuy wax madame bonheur. mais xam nga aawo bi souvent bu fekkee loolu dëkkoor ci lu muy def. wëlbatiku di dabaatal li ñaareel bi def daf lay yóbbee ñàkk fay xamu ko xamu ko yow xamoo taaj ndogu hmm. xamoo tàggoo hmm. xamoo tarbiyu sa jëkkër xamoo fóot xamoo fóot xamoo mu wàcc nga may ko ndox xamoo xiif ñaareel ñu sol ko parce que ñaareel yi léegi bu ñuy ñëw ay kot su la ñuy am barka borom Tuubaa ay meela leen di dar ay diri ak ay. wax nga dëgg waaye. dafa ay coach am na ñu sëy tax a jóg de. wallaay wax nga dëgg am na ñoo xam ne dañuy sëy ba dem barsax. wallaay Fall nañ leen waxtaan nañ leen waxtaan. am na ñoo xam ne sëy moo leen tax a jóg. sëy sëy na loo nekkee góoru monogami sëy signé benn jabar. doo xam lii ñuy wax doo ci xam dara. Eh, Saal moom non non. ma doon waxtaan Saal yaa ngi yaa ngi dérapé dérapé non non. may ma wax la benn affaire. Saal li muy def nii yëpp baax na. may ma wax la benn affaire. oustaz li mu wax. Mhm. takk leen ñaari jabar ànduma si. munoo toog sa biir kër. waaw nga ne yaa sa jabar da ngeen am problème. amoo leen jàmm. non nga ne da ngeen am problème. waaw liñ doon waxtaanee. Mhm. boo wàccee 4 heures. balaa ngay ñëw 10 heures parce que nee nga déglu ma rek au bord mhm. boo wàccee loolu c'est malhonnête sax boo wàccee 4 balaa ngay ñëw 10 heures nga koy def di koy def di koy def. te jéemoo ñëw si biir kër gi wala woo ay kilifa wala ñeneen pour ñu xool naka la ñuy régler problème boobu nga dem. deux mois trois mois nga ñëw indiwaat jabar ñu ne ko nga ñëw si sa jabar ne ko takk naa ñaareel. Ah, d'accord léegi dafa am yenn saa nga am. loolu loolu dafa am lu ma koy laaj dafa lu ma lay laaj xam nga da nga ne bu fekkee sa soxna da ngay ànd ak moom histoire non non waaw dama lay non non dama lay laaj man maa lay laaj. ok maanaam xam nga da nga ne yenn saa yi sa soxna yenn saa yi nga am ak moom ay embrouille ay histoire mm-hmm. mu leer na ni boo toogee foofu. Mm-hmm. wax ji day bëri da ngay eh, génn. Eh, dallu ji ba mu ba mu dal nga ñëwaat. léegi <laughs> léegi <laughs> léegi ci même si si même circonstance yooyu. boo tombee koo xam ne dafa bëri histoire bëri histoire mooy doo leen toog une semaine te tongu la parce que am na ñu mel noonu. léegi chaque semaine yaa ngi génn. Mm-hmm. disons Benoît day am problème mu dem ci corniche ba toog jël ko koom toog kuul nice fine mhm. benn xale bu jigéen da la fay repérer xam ne kii mooy loolu yenn saa yi mu ñëw toog waxtaan ak yow échange ak yow mhm. donc avec le temps tu peux mhm. miin kooku boo ko miinee ba xam ne mu ngi lay comprendre maari day taali da koy jël andi ko andi ko si kër yi mu nekk sa ñaareel parce que da nga naan kii au moins mi may comprendre mi may déglu te dina ma andil jàmm ute naa ka ma bàyyi sama kër ah adduna kenn du doxalee ah lu tax sa xalaat su fekkee dama toog uh-huh. sa kër di am des problèmes ak ki ma yàlla boole dafa ragal <laughs> bu ko fekkee dama toog sama kër di am des problèmes à répétition ak sama jabar. waaw du ma ko fajee mer. waaw ko fajee dem. génn non calculé woo woon loolu calculé woo woon xale bu jigéen bi calculé woo ko de ba bàyyi ma laaj dama laaj mhm. su fekkee dama am problème ak sama jabar mhm. du ma ko fajee mer pour takkiwaat beneen jabar déedéet takki woo calculé woo d' accord ñuy am problème ak moom à répétition waaw ma woo ñi nga xam ne maak moom non génn bi ngay génn ci bi non génn bi ngay génn la wax saf yaa dama ne bu fekkee dama nar a def loolu chaque jour ma nar a génn. waaw ma fase ko. déedéet léegi nga génn ak yàlla def nga dal ci genn gone gu mën affaire su ma ko fasee ba pare su ma génnee taseeg beneen jigéen waaw genn gone gu mën affaire lan mooy mën affaire eh, eh, xam nga li may wax li ñuy wax ni dafa am importance góor yu bari ñu fiy fajee profito si mer mooy jabaru faj mer fa jabaru faj mer te kooku mooy indiwaat divorce lii Sophia wax du jabaru fa quelque temps mais jabaru faj mer si jabaru faj mer amul jabaru faj mer amul fi aduna oustaz may ma yeggali fii après génn nga dem daje ak. dama ne Safia yow man moom star moom Safia. dama bëgg ñu li may laaj Safia bu Safia dama ne Benoît mooy moom Sénégal la dëkk wala moom la bëgg xam dama wax dafa am moom la góor yi di def moom la góor yi di def Sénégal damay jël téléphone bi léegi sa jabar balaa ngay tal takk ñaareel lijjanti sa problème da nga war a lijjanti yàgg sa jabar ba jubóog moom ba pare soog a takk. c'est plus responsable tu peux pas xulóog sa jabar dem takk ñaare indi ko mais kooku ban àdduna lay nekk. mais ban jigéen moo mooy approuvé loolu ban jigéen approuvé loolu ban jigéen moo la naan nañu jubóo nga takk ñaareel. non waxuma loolu non non dama ne <laughs> oustaz. oustaz na. waaw am na li yàlla wax. waaw yàlla waxul fen ah. nga xulóog sa jabar. waaw profitoo si loolu. déedéet defal waaw may ma loolu kenn du ko def. mais moom ngeen wax fii. déedéet waxuñu loolu de. si moom la sax yaa posé question. bu dee bu la mayu la jàmm. su la mayul jàmm la wax. waaw ma ne ko su ma mayul jàmm yàlla moo bind tas ma bàyyi ko mu dem ma ut koo xam ne dina ma nekk ak ma. waaw léegi waxal ba daaneel man sama temps. voilà dama si profito. sóoraale loo xam ne bokkul si àdduna. su ma fekkee dama nekk sama kër ak sama jabar. Safia daf ma laaj ngeen di am problème chaque fois ngay génn ngeen di am chaque fois ngeen génn. ba dem taseeg jigéen. ma ne balaa may dem taseeg jigéen. kooku si boppam ki nga xam ne laay amal problème dama koy bàyyi mu delluwaat kër papa ma ki yaayam ba pare ma toog dallu sama àdduna soog a utiwaat jabar bu fekkee jëloo option am ñaari jabar mais ku jël option ñaari jabar moom laay wax prospère si biir mer bi munoo fi takk ñaari waxuma ci biir mer mais xanaa dañ ne nit di tey garabam nit ñàkk na jàmm këram nit ñàkk na jàmm këram ba am ñaareel jabaram doo ko defaru moom. franchement bu fekkee noonu ngeen di xalaatee. noonu la ñuy xalaatee waaw j'ai pitié à vous les femmes sénégalaises. waaw mais ñaareel dina defar daaw Sofia am ñaareel ma dem jël téléspectateur maa ngi maa ngi rafetlu kàddu yi fi jib. dama doon xaar mu dellu si ci man mhm. rawatina li soxna siy wax. Mm-hmm. te li ci gën a am solo mooy li mu wax ni moom. lu ci bari soxna si maman ummu la maman ummu. daf ko jàng ci daayira bi mu bokkoon muy daayiratul mustarsidina wal mustarsidaati mm-hmm. nga xam ne ñoom ku ne xam na seen farlu ci wàllu jàng xam-xam mm-hmm. rawatina seen kilifa gi nu am muy Serigne Moustapha si mu Serigne Cheikh Tidiane si almaktu euh, may rafetlu itam Prospère kàddu yi mu wax mm-hmm. man Prospère buy wax damay bëgg jël sama temps sax bàyyi ko mu jëlaale moom temps bi muy wax ndax am gi mu am solo li muy wax mais Prospère chaque jour Sophia da ngay am problème ci Prospère ban jamono lay dund Benoît Benoît ah, Benoît <laughs> da ngay xalaat naan moom senegal la nekk. wala Mali la dëkk. wala gàmbi la dëkk. Ah, parce que nan nga mën a taxawee naan muñ dafa am fu mu yem. waaw loolu la wax muñ amul àpp. xam nga lan lañ la wax Sofia. Uh-huh. muñal ba keroog ngay ñàkk mën a muñ nga bàyyi. Mm-hmm. waaw moom kon kañ am na àpp. wala nga muñ ba keroog ngay génn. dégg nga wax am na àpp. parce que yàlla dafa bëgg kuy muñ. Hmm. yàlla muñ yombul. oustaz waxal man man nag man nag bëri wax su ma sooy wax dama lay mais waxal muñ yi yàlla wax mais ma wax. d'accord waxal muñ yi yàlla wax. yàlla dafa wax. man yàlla maak muñkat yi ñooy ànd. Hmm. dama bëgg kuy muñ. sama xel ma asaabiriin. wallaahi bépp natt. waaw way muñkat yi la àndal. man yàlla maak muñkat yi ñoo ànd. Hmm. Mhm. da ngay nekk ak sa soxna mu lay def naka su dul noonu. Mhm. ngay muñ di muñ. di muñ soo demee ba xam ni mënatoo continuer muñ am nga droit takk keneen koo xam ni am na yaakaar ni bu ñëwee mooy tane ki fi nekk. ba tey. yonent yàlla Ibrahima papaam dafa ñëw fekk ko mu toog fekk ko fa mu nuyoog soxnaam. Mhm. mu ne ko an sa borom kër mu am nu mu waxee ak moom. Mhm. mu ne ko benn kàddu rek laa lay yóbbante ci moom. Mhm. su ñëwee nee ko buntu kër gi fi mu ko teg du foofu. mu ñëw ni ko sa sa papa ñëwoon na fi mu ne ko lu mu wax. mu ni ko nee na buntu kër gi fi nga ko samp du foofu <laughs> mu ne ko kon fase naa la luy loolu mooy sa pap sa sa papa nee mm-hmm. yow mi ma takk doo sama soxna ndax sa jikko rafetul mm-hmm. naa wut ku la gën jikko mu ñëw waaw waaw remplacé la mm-hmm. buntu kër Sofia am na góor ñoo xam ni ñi ngi yëgee bànneexu sëy ci biñ amee deuxième femme billaahi wallaahi am na góor ñoo xam ni ki leen yàlla booleel mbugal la ci ñoom ñu ngi te nag. en général ñooñu. en général ñooñu. mbugal la si ñoom doo ko fase. day muñ. mais fase du noonu. man mbugal la si ñoom ba pare doo ko fase fase étape par étape. fase du noonu xam nga yàlla wax. étape par étape. day muñ mbugal. soo nekkee ak sa soxna mu def la naka su dul noonu alquran dafa wax ni wax juruhunna fa baasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha euh, faiduhunna da nga koy waar ne ko li ma def neexuma bu ko defati. su ko defaatee yàlla nee na nga ne ko ci lal bi. su ko defaatee nga dóor ko su ko defaatee nga woowee ay mbokkam su ko defaatee nga fase ko kenn du tëb tëb fase waaw moom lañ fi wax sax kenn du tëb tëb fase étape par étape mais dama la ni ki nga nekkal guddeeg bëccëg te mënoo am jàmm te am nga possibilité takk ñaareel demal takk ñaareel am jàmm donc yow oustaz tu approuve boo tu approuve ne boo nekkee sa jabar sa aawa mayu la jàmm. nga takk ñaareel. defal naan mayu la jàmm ngeen di xuloo nga xuloo moom. te da war a dem takk ñaareel. waaw ah. loolooy faj affaire bi. waaw mais lool ah, loolooy lan. mooy takk yar ab la. da ah, eh, ngay dégg Sophia ba tey ku nekk sa gis-gis daal waaw. attends ça c'est grave. mu am góor ñoo xam eh, américain. non pas ma oustaz japon la nekk. oustaz eh, japon américain yi. am na Sophia. su fekkente ni bii. Mhm. da ngaa nekk ak sa soxna. mënu mhm. la may jàmm. Mhm. am na góor ñoo xam ne safara la ñuy dund. wallaay dafa metti nag. te souvent ñooñu dañuy bëgg ki ñu nekkal mbëggee lay tax. ñu am ah. problème. Mm, si ko léegi. nekk ak sa aawo mu ne la damaa bëgg nga abandonné sa yaay ji la jur. ñu génn maag yow wuti appartement. lillaahi. bu fi sa yaay waree ñëw yow ku góor ki da ngay yappar yappar yi ba ci moom toog naan ko <laughs> maire bi nee na. nii ñëw xam naa daf fi bëgg a ma du fi yàgg sax mais <laughs> da ngay négocier lépp. négocier di tànn say sœur du nu ñëw. Mm. say frère du nu ñëw. déedéet amatoo xarit. déedéet toog na ci sa xef yi. waaw waaw kañ ngay dund. <laughs> ndaxte da nga koy bëgg na. nag ko lay dal ci moom ba dootoo ko mën a baax. da nga koy bëgg da nga bàyyi dana la tàggale sa famille mm-hmm. tàggale laaj ak say sœur mm-hmm. tàggale la say frère ñëpp am na jigéen ñoo xam ne yoruñu puso duñu ñaw lu baax tekkale leen gën a mën mais nga fase ko Safia déggoo da nga koy bëgg. Eh, doo xaar ma jël téléspectateur yi te ñëw ci moment. non man li may dégg fii franchement. d' accord calme-toi calme-toi yow sa gis-gis may dégg nii ay ay yow sa gis-gisu dans la vie. moo ñu faj mer ak ni ñuy gis moo tax benn sëy du fi yàgg moo tax benn góor. munoo faj mer di takk jabar sa jabar balaa ngay takk ñaareel xolam dafa war a neex loolooy Sénégal gel yi géey yëpp seen jëkkër ay xulo la ñuy def indi beneen gel boo xam ne moo ko raw sax kër ga ne fab moo fi bari bala ngay takk nga tàgg ko ba mu d'accord ma ne balaa ngay takk sa jabar kër gi dafa war a neex nga tàgg ko ba mu d'accord kër ga papa xaaral ñu jël téléspectateur yi ñu continuer ñu jël suñu premier téléspectateur bi ce soir ñu ngi jégalu yéex nañu ubbi téléphone bi mais euh, noonu la ñu jël leen salaamaaleykum allo bonsoir waaleykum salaam ah soxna naa leen maa ngi fi maa ngi sant bu baax yow noo def. maa ngi sant bu baax incha ñu ngi déglu sa xalaat ci thème bi. alhamdulilah maa ngi sant bu baax ñu ngi déglu ci kanawaay tey jii kontaan nañu ñu ngi lay déglu. ma déglu dëgg la. dégguñu bu baax dégguñu bu baax. nee na mi ngi lay ziar baax ñëpp ñoo xam ngi daje foofu maa ngi kontaan bu baax man maa ngi wute fii Guinée Bissau laa tudd. jërëjëf. maa ngi déglu seen wax bu baax a baax a baax maanaam ci gàttal. Hmm. E, fi ma nekk fi laa toog waaw. ñu bëggoon ma lool nekk ci jàmm macha allah nga xam ne sama loxo jotul sama ginnaaw. waaw. waaw may jóg di daanu jóg daanu ba sama loxo man suñu ginnaaw. alhamdulilah. ma defal lu bëree bëree bëree bëri. waaye daal xam naa ni. Hmm. su ma yëgoon sax sama loxo jot sama gannaaw. su ma doon su ma su fekkoon ni damay arreeraat dama koy arreeraat. ndeysaan bu baax a baax ba ma continuer ci ni ma meloon. Hmm. parce que bànneex bi ma bi ma amoon ba may sëy ak moom bi mu doog a bi ma koy doog a takk amatuma loolu. Hmm. te li ma mënoon tey laa man. li ma ko doon defal tey laa ko gën a mën waaye yàlla mii ma ci xam na ni léeg su ma demee liggéey du ma ma wàccee damay bëgg a toog foofu sax du ma bëgg a ñëw bu woon sama njaboot dama fay toog ma wàcc maanaam yow instant yi nga yorulee xaalis boo ko yoree ci la la gënoon may jàmm que instant yi bi nga bi nga yoree li nga ko yoree mango fi lépp lu mu bëgg fi dool defal naa waaye tey laa gën ñàkk am bànneeku tey ko daan day am doo am jàmm. waaw lan moo waral loolu sëñ bi boo wàccee day mel ni su ma duggee ci kër gi day mel ne sawar sawar laay dugg. day am ci comportement moom la wala lan la nan nan lan mooy problème bi. bon man lii problème man laaj naa ko nee naa ko luy sa problème. mais du ko xam. yow amoo woon télé am nga télé. Hmm. amoo am nga publicitaire. yaa ngi dëkk dëkkin bu baax. solol naa la woddu naa li ma mën lépp def naa ko li ma lay defal sax moom. daanaka mun naa ne daal doy na kenn mënu koo wax kenn mënu koo wax lépp. waaw mais jigéen ñu tafaar lay doon tafaar lay doon. aw ay rek mais man mënuma comprendre. waaw ay rek. mënuma comprendre. wallaahi man su ma su ma demee sama kër woon noonu quoi. pour ma pour ma mën a wàcc dem sama kër sax. day mel ni dinaa ma bul dem kër ga parce que su ma demee jàmm ji may am su may di parce daan sama doole ndax du ma ko am doo ko ñeme dama ne loolu xam-xamoo loolu baa jàmm damay wax bu du doon sama njaboot bu doon sama njaboot sax du ma yegg sama kër damay toog toog ah, njaboot nga ah? <laughs> njaboot gi rek laa gis. wallaahi li dama naan man damay te mënoo koo wàcc. moom laa ko mënoo fexe boo ci ko nooy def wax non man maa nit mënoo am ak moom ay njaboot. doon teel a njaboot ñu topp ci yow nga koy wàcc mënut a nekk. billaahi am na ko mënut a nekk. impossible kay ah, waaw mon frère mënoo mënoo mënoo jekk rek ni wàcc naa la noonu noonu. boo wàcc sax du dem du dem fenn day toog rek. du dem fenn ci kër gi lay toog. du mu jóg. waaw di defante ak yow di dafanteeg yow. soo ko dóor doo ko saaga ko génne. soo su la fa doon waa fekkee de. <laughs> Euh, mais mais mais bi. da ngay toog di muñ sëñ bi xam nga da ngeen ni ci début mariage bi instant yi nga yorulee dara melul woon noonu kon lii du habitude am. du habitude am léegi lan ko indi. lan moo déclenché ni mu mel nii. ko wax. dafa dem benn ko am ay rek. na bi mu amul kooku daan si la kii mu. habitude c'est le contraire. allo allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si noo def mbaa yaa ngi ci jàmm. yàlla bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. Euh, maa ngi nuyoo di ziar. ñu ngi lay fay di delloo ziar bu baax. di rafetlu encore une fois émission. merci ak thème yi ngeen di développé. merci c'est gentil. Euh, euh, thème bu am merci beaucoup et je crois que ménage yi des deux côtés ah bu ñu fi nekkee naan góor ñi nii jigéen ñi nii. ñaari côté yëpp la. dëgg parce que comme je dis tout le temps euh, famille couple góor ak jigéen la les hommes souffrent une femme et je suis d'accord et li ñuy souffrir bëri na trop actuellement comme a dit la dame ci plateau bi que salut au passage di di rafetlu ay kàddoom. Mm-hmm. jigéen ñu bëri seetuñ mm-hmm. correctement. Mhm. ça il faut l'accepter jigéen ñu bëri ñu ngi nekk ci seen sëy di caaxaane seen sëy di def lu leen neex dëgg la mhm. di beneen côté bi tamit y de des hommes aussi qui font pareil et je crois que dans cette situation là kenn du ci gagné. Mhm. góor bi du ci gagné kenn du ci gagné xale yi duñ ci gagné donc ñëpp war a def xam nga li ñuy wax ndëpp national ñu def prise de conscience ku nekk xam li nga war a def ak lii sa rôle ak lii sa cër nga dox ko rawatina nag ci jigéen tey na ma Benoît baal sama xarit la damay <laughs> moom toujours mais sëy ak société jigéen moo war a instauré yenn yi wax dëgg yàlla jigéen rôlam dafa primordial c'est très important arrêté dëgg sa jëkkër sa kilifa la. wallaahi suñ bëggee ak suñ bañee. wallaahi. sang la suñ bëggee ak suñ bañ bañee. wallaahi. te am na yenn yoo xam ne su ci jigéen taxawee ci sëyam ah du ma ne duñ ne tout temps di nga am xëy na résultat bi nga bëgg mais à quatre pour cent di nga am résultat bi nga bëgg. wallaahi. parce que bu coow bëree ñaari nit a ko si. Mhm. benn lam du kandak loolu la olof. wallaay benn lam du yëngu. benn lam du yëngu. wallaahi. dëgg la am na ay góor ñu bëri cëfër cëfër am na ay góor ñu bëri euh, xadar et mais je crois que tout le temps bu fekkee ne jigéen bi mi ngi ànd toujours ak xelam ak sagoom rek euh, dina am li mu bëgg. Mhm. parfois nag c'est un peu difficile parce que ñun tamit ay nit kese lañ. Mhm. parfois nga juum parfois nga mer parfois sa xol tooñ la. Mhm. parce que tamit xol du ëmb ñu koy bës. li oustaz Modou Fall di wax daal sama xarit boobu. Hmm. xarit Fama Diouf. su jigéen ni defee li ñu war góor ñi yërëm leen je crois que lépp luñ bëgg dinañ ko am. et lii c'est tellement intéressant que ñëpp dañ ci war a parce que sa yi yàqu dafa bëri. Hmm. soo demee tribunal jour divorce da nga naan Sénégal kenn sëyatu fi sëy yëpp tas nañ. Hmm. donc c'est irrécupérable mais nag. jigéen ñi tamit am na ñu bëri ñuy souffrir ci seen kër góor ñi abandonné leen duñ leen dëkkal duñ côté mère bi sax c'est moins grave mhm. mais nga bàyyi sa kër yaay bàyyi sa kër papa ñëw ci góor doo ko gis doo ko dégg bala moo tëdd si nelaw nga bala bala bala bala moo bala ngaa bala nga bu moom bu tëdd see di nelaw fekk na yow nga yeewu dem dox si ay soxla xëy na su fekkee da ngay liggéey wala dara doo ko gis doo ko dégg amuñu benn benn benn benn benn ni ñu koy waxee ci sax amuñu benn amour amul dara lu ñu lay wax lu lay retenir te nga jógee sa kër léegi sa kër baay ñëw fi fekk si leen toppatoo wuñu la lijjanti ñu ah jigéen ñu bëri ñu ngi souffrir ci loolu te loolu nag il faut que ñu wax ci maa ngi jégalu gudd na mais maa ngi jégalu bu baax a baax. merci beaucoup madame kontaan nañu sa intervention waaye am na njariñ. merci beaucoup su guddee tamit am na njariñ. ay ci papa jëlal ki ci topp. allo asalaamaaleykum allo MD. MD ku nekk foofu. ati kooku dem na 88 628 89 90 88 628 28 28. Papa jëlal. allo. allo. ati wàññil télé bi wàññil télé bi. waaw wàññil télé bi allo. daneen wàññi télé yi nag boo leen di wootee ñi nekk extérieur ñu ngi leen di nuyu. allo joxal kenn allo oui. allo. waa allo ku baax. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sang bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sang bi. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay dégg bu baax baax. mbaa ngi ci jàmm. naa leen di nuyu di leen ziar bu baax. ñu ngi lay fay bu baax sëñ bi na nga def. naa ngi leen di ziar bu baax. fooy wootee. maa ngi woote fii Cité Marine Derklé Abdoulaye Guèye bu sëñ Mansour si borom daara ji. est-ce que xayartu ah waa sëñ Abdoulaye Guèye def. sëñ Modou Fall Oustaz. am yaat la jox sa wàccuwaay. di coordinateur national action daara ji bu teewal. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. di leen bu baax. jërëjëf imam di kontaan bu baax ci émission bi. macha allah jërëjëf. sëñ Modou Fall yal na la yàlla may téeméeri at yu ànd ak wér ci barke bëkkat yi amiin yow la la la borom bone kaari bu waxoon lañ lay ñaan ñaanal yal na la yàlla làq fa yàq yëgul ndax ku fa yàlla làq loxo du la jotee ba di la laal allahumma amiin amiin yaa rabbi ci barke si na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin euh, li may wax rek lu gàtt la moom lay indi ci émission bi rek mm-hmm. di kontaan trop ci ndaw si diriger émission bi di kontaan ci intervention père koy déglu bu baax kontaan nañu. di kontaan bu baax ci waajooju tamit dend ak euh, Oustaz Modou Fall. di kontaan suñu mo daati boobu toog. Mm-hmm. Euh, Benoît tamit déglu nañ ko bàyyi ko xel waaye man ci moom laay indi lu tuuti lu gàtt rek. Mm-hmm. ndaxte dafa am lu olof yi di lépp. Mm-hmm. li olof yi di lépp te maam Seydi si Malick Sy moo ni woon. Hmm. olof buy lépp na nga ko déglu ndax bu lépp boo demee fekk ko ci téere yi. Hmm. te olof moo ni fu fas mënut a yegg xel a fay dem. Hmm. te oustaz Modou Fall sànq indi na lool ci biir waxam di ko wax ak bënoo. mooy li ci sa xel nga di ko dund. loolu boo jëlee sa xalaat boobu yow. bëgg ko jëme ci nit ñi pour ñu dund lu mel noonu. dafay xaw a jafe. <laughs> parce que Benoît boo xoolee li mu indi di ko teg yëpp. Hmm. dafay mel na moom li mu li mu téye rek dund loolu ni ko Moodu Fall wax. Hmm. dafa mel na loolu rek mooy li nekk moom la nit ñi war a dund te du noonu. <laughs> man damay def conférence déglul bu baax tey Benoît li ma lay wax. <laughs> Sénégal yëpp nga koy dégg. Hmm. <laughs> ñi sant si ñi sant Mbàkke ñëpp toog fii ci tànk boo demee ci internet bi fekk ko fa. mu sit TV da koy teg toujours. Euh, télévision Malick yaa da koy teg. Mm-hmm. gërëm sama soxna bay jooy ci biir tànt bi sama aawo. Mm-hmm. benn soxna la am. wallaahi ma gërëm ko bay jooy. waaw man itam mi ngi nii xale la. waaw. sëy naag moom presque lu war a jege presque léegi mu mat 40 ans. Mm-hmm. waaw. ma ni leen sama yaay feebar na presque lu mat juróom benn weer moo koy sang di ko tëral di def lépp. bi ma jooyee tànt bi daanaka jigéen ñëpp di jooy Habib Seye ngi toog ñoom sëñ mën soo demee si yéen yëpp ñu toog Cheikh Oumar ñëpp. waaw bi ma gërëmee sama soxna bay tànt bi jigéen ñëpp daanaka di jooy. ba bi mu tasee am na benn kilifa bu ma woo ni ma indil nga ñu problème damaa dem sama sama soxna li ma yéen góor ñëpp war ngeen def ni Ablaye Gueye def sa jabar boo koy gërëm da koy gërëm ci bu muy dund. wax na dëgg te ci mbooloo taxu publiquement gërëm jabaram bay jooy. Mm-hmm. ci jigéen ñoo xamante ni wax nañ ni Ablaye Gueye mi dootu kii de xaw ma kan waaye moom dootu takk ñaareel man leen bu leen boole ñaar yi du benn. Mm-hmm. gërëm sama soxna sant ko wax lu muy def ci gàtt tànk gàtt làmmiñ fonk ay mbokkam du dem fu yoonam nekkul waaw lu jëkkëram bëgg bëgg na ko lu mu bañ bañ na ko mm-hmm. te lii may wax boo ko laajoon Habib si seede la ci ba Habib si naan ko yow wéerul ci man rek loolu mën leen jotewul dara ak takk ñaari soxna bis bu ma gisoon beneen jigéen bu baax bu mel na moom wóor ma ni kii tey mel na na sama soxna. Hmm. gàtt na tànk gàtt na làmmiñ fonk na samay wajur lu ma ko sant lay def lu ma ko santul du ko def lu ma bëgg lay def lu ma bëggul du ko def su boobaa ma jël kooku soxna. fekk gis ma ko mel na moom du ma dugg ci du ma dugg ci keneen. wallaahi soos Modou Fall jàngale bi mu jàngale yëpp loolu la. te bu ñu waree jël ñaari soxna wala ñetti soxna wala ñeenti soxna ñu ñu baax. nañ leen jëpp mooy tax société bu baax mooy tax jigéen ñi lambar lambar beeg yu bari wàññeeku. waaw waaw góor ñi góor bu nekk boo sañoon nga am ñeenti jigéen ñu baax ñu nekk ci sa wet. waaw boo sañoon am ñaar ñu nekk ci sa wet. waaye la yàlla joxe awo mu baax. da ngay góorlu ba indi fa keneen koo xamante ni ku baax la. Ah, d'accord loolu la ñëpp di ñaan yàlla te man loolu laay ñaan yàlla góor tamit loolu lay ñaan yàlla. soo ko gisee kon dama bëgg débat bi ñu déglu bu baax oustaz Modou Fall ak kooku mu dendal man nit dañuy déglu sax ñëpp waaw père ma ngoone ni mu indee thème bi ak ñu duggee tubaar fa kàlla macha allah développement bi am na solo parce que li ngeen di wax tey ci affaire mariage nañ ci dugg ba ci biir jigéen ñi nañ ci duut baaraam suñu yaay ju baax ci fan yee paase rek dégg mi ngi koy wax ajaam rek xaar mbay ma jàgg ci tëngéej hmm. ne xale yi ñun nañ daan sëy ak ñoom nañuy sëy léegi du benn hmm. nañ jàngalaat xale yi sëy boo gisee divorce yu bari xale yi dañu foog ni xawoo mm. ak li nekk ci biir sëy benn te du benn wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ Ablaye Gueye waaye ñu oh, na su gisoon koo xam ne leer na ko leer yàlla ne mel na ne awo bi nee dina ko jël nee bëgg na ci ba ñeent waaye wóoru ko benn la ca gis li mu wax sañ na ko mu ne dafa toog gërëm jabaram bay jooy waaw waaw parce que jabaram moo ko liggéey moo ko liggéey waaw waaw parfaitement d'accord waaw waaw ute ñu toog ne da ngay xuloog sa jabar si mer boobu nga génn indi jabar. loolu ànduma si. d'accord 88 628 89 412 ma bu kenn takk ñaareel de. li mu wax bu ko neexee takk ñaareel. ñaareel ku teew waaw baa leen ñu jël baa leen ñu jël ànduma si. baa leen ñu jël keneen Modou Fall ne la su meree dem indi. si loolu la ñu wax. waxu la loolu na wax si biir mer mun na indi ñaareel. négal gaa yi dugg allo bisimilah. allo si biir mer mun na indi ñaareel. nay leer. MD indi allo. allo. 88 628 89 90. ñoom ñooy xëccoo rek ñoom ñëpp ngi ci ligne. ngi ci ligne bi nañu ko déglu tuuti allo. moom dafa nekk di suivre télé bi boo leen fekkee da ngeen di composé ah pour dugg ci ci ci émission bi. dee leen di i téléphone. allo jox ñu jox ñu ki top ci moom ñu ngi jégalu soo gisee appel bi nga mën a duggaat. bonsoir bonsoir monsieur. c'est monsieur Sambou comment allez-vous. Sambou vous allez bien. <laughs> moom Nami Samb. maa ngi leen di nuyu yàgg naa fi ligne Massa Massa Massa Massa. allo Samb. allo. allo oui waaw allez-y on vous écoute. ok donc damay dem ci thématique bi donc euh, directement. Mm-hmm. donc euh, euh, seen donc Sénégal. Mm-hmm. Euh, boo gisee tey y' a beaucoup d' donc abandon bi mun nañ ko xoolee sur mhm. plusieurs volets. Mhm. moi je pense que il faut imam yi comme sëriñ yi ñu am la courage wax dëgg le devoir du mariage que ça soit l'homme mhm. comme le garçon comme la femme mais Sénégal moom actuellement du du comme dëmb de mais aujourd'hui le mariage c'est comme ku jóg rek nga dee takk te nit ki bu amee xaalis le plus souvent on lui rappelle pas benn essai na ko wax tuuti mais d'une autre façon on lui rappelle pas le, le mariage c'est quelque chose de sacré au Sénégal ce plus quelque chose de sacré ku jóg tàkk boo amee xaalis ay imam comme ay oustaz mi toog ñuy wax c'est pourquoi je pense que pour que nit ñi bañ a am ay ay abandon il faut que góor yi oustaz yoo xamante ne xam nañu ñi ñu ñuy wax ñi ñi am lu courage wax lu am lu l'islam wax te que ñi bañ a wax topp puisque aujourd'hui foofu lay wax samay wax mooy ce qu'on remarque imam yi il préfère arrêter que ay Macky Sall wala bi te yonent bi la ñuy roy su ko def dem kër Macky Sall mu jox leen ay oto ñi dawal loolu moo leen neex. Hmm. sama wax foofu laa koy terminer na imaam yi dellu si yonent bi lu ñu doon def te di préféré dem jël xaalis alal bi ñu jox leen ay oto loolu yonent bi bugg ko merci beaucoup. d'accord jërëjëf kontaan na ñu jël keneen 88 628 89 90 allo bonsoir. Ah, Sofia. naam ba ki ma doon saaga ndey mi may woon ni xool ko xool insulin. ko bëggul dédicace waaw waaw mi moo ma doon saaga ndey coupé na <laughs> coupé na léegi mooy ki ma doon saaga ndey <laughs> ba keroog bi ma lay wax naan la menacé na ma de mort mi ngi nii mi ngi nii di woote waat ah, wuyu ko Safia ah, ah. maa ngi yëpp mi ngi may saaga ndey mi ngi nii di woote waat baal ko am na am solo dañ jël keneen salaamaaleykum ñu ngi bëgg waaye allo waaw dafa appel dafa dugg waaw soxna si noo def allo soxna si mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu lay bàyyi nga joxe sa xalaat ci thème bi aussi. oustaz Modou Fall maa ngi lay ziare. maa ngi lay ziare bu baax soxna si. man sa fan Clara ma lay déglu di la seetaan all time. ndeysaan jërëjëf yal na yàlla fay la ci loolu. waaw waaye oustaz Fall bëgg naa booy wax ci jigéen yi ndaay wax ci góor yi tamit tuuti. ci góor gi. waaw. Mhm. man nag xaleel laa nag ma nekk ci sëy damaa a dugg ci mhm. waaye jamono buñ toll nii góor yi ñuy def jigéen yi bari na torop surtout ñun suñ Amérique gii nii. booy waxtaan. di mhm. joxe advice day wax ci góor yi tuuti tamit. am na jigéen yoo xam ne jàmbaar lañ ay sëykat lañ dëgga mais am na yenn yoo xamante ne macha allah du ma wax ñëpp nag parce que bu ma waxee ñëpp dina am ñu ma tooñ mais bëgg naa ngay wax ci gars yi tuuti tamit incha allah waaw d'accord maa ngi ziare père tamit di la di la ñaala yan la yàlla may gudd fan ak wér amin amin amin ku baax nga amin jërëjëf. jërëjëf. amin jërëjëf merci madame. jërëjëf. jërëjëf 88 628 89 90 allo. allo. Aïcha Ben dafa amoon loolu wax balaa may. Euh, am na loo xam ne euh, suñu kilifa bu baax boobu dafa génn wax ko. mu ne nañu jàngal jigéen ñi sëy mais man je crois que Sénégal góor yi la war a jàngal naka lañu war a yoree jigéen. waaw imaam Ablaye Gueye moo ko wax de. góor yi la war a jàngal naka la ñu war a jàngal nak la ñu war a yoree jigéen kooku moom manqué dans ce pays. mais munuñu tëb chaque fois di ne jigéen ñi ñoo sëyatul jigéen ñi ñoo defetul lii mais il faut écouter les femmes calvaires yi ñuy daj jigéen tëdd na si lal di wasin ñu fekk ko fa ne takkal nañ la ñaareel. Mhm. boo waxee ñu approuvé ko ne daf si am boo waxee ñu approuvé la ko Sénégal ne daf si am droit xam naa kuñ ko def xam naa kuñ ko def ma ne xam naa <laughs> du ma wax tur xam naa ko parce que parce que parce que yow yaa dugg yow yaa dugg kër cinq minutes yow yaa dugg kër cinq minutes di ñaani jabar xam ne paa bi dañ ko yeew man man mënu ma dugg kër cinq minutes xam lu fa xew yow moom tu as le chapeau ma ne xale bi turu ñaar bi lañ ko tuddee sur la billahi turu ñaar bi lañ ko tuddee billahi wala xale bi turu ñaar bi lañ ko tuddee day toog si télé bi pour sa doom génn ñu ne la mu fekkale la ñu ne sama aay day ah, moom mais mais dégganteetuñu déglu déglu déglu ah, xaaral suñu déggante day toog si télé bi di ne mhm. télé laa toog du ma wax loo xam ne sama waa kër ñu may seg bu ma setaan télé laa toog du ma wax loo xam ne samay doom kon léegi mën ngay toppandoo yow ak ñu ma non parce que yaa ma weddi mën ngay toppandoo dama la wax li am dama ne fan la am ma ne c'est une question que j'ai posée ma toog fii di dévoiler ne diw lañ ko def. ma ne xanaa kon bi ñaareel bi lañ koy tuddee. dama ne du ma toog fii di dévoiler fan la non benn toog fii di koy dévoiler. bëgg a weddi bu mu tax nga weddi bëgg a yuuxu bu mu tax nga yuuxu. non man ça existe waaw mais prospère jé jé jé mais ñu continuer s'il te plaît. dafa am loo xam ne. Mhm. nañ ko waxante te dee. Mhm. ki fi dugg euh, sañu sañu kilifa gu baax googu. imaam. Mhm. jabaram soxnaam. defal ko loolu yëpp. waaw déggal ko muñal ko dimbale ko si ay waajuram dafa préciser ne loolu utee na ak su ko neexee takk ñaareel yes bu ko neexee gis keneen ku baax def li yàlla wax yemale leen takk ko dugal ko si gam je suis parfaitement d'accord mais li ma wax ma waxaat ko ma ne ñoom dañu ne sa jabar boo leen di am problème ngay génn ba gis keneen ndax fase goo da nga war a indiwaat kooku si biir mais kooku boo ko indee problème li ngi gën a am man ma ne mun nga takk ñaareel bu fekkee ki nga nekkal na neex ba pare am boo amee moyens boo amee lépp nga dem. mais benn incompatibilité d'humeur day am yenn saa nga takk nit xalaat ci moom sëy bu baax te sëy ba du dem. du dem nga xalaat nit takk sëy bu baax du dem. day am day am. yéen ñaar doo leen laale. doo leen laale nga bàyyi ko mu dem. mais mais comme comme ni li la oustaz wax sànq te père ñëwaat ci. waaw fase yombewut noonu. ma ne Safia fase yombewul noonu de. Mm-hmm. xam nga sànq man maa toog ne. bu mm-hmm. fekkee danga am sa jabar. Mm-hmm. ngay wàcc di dem foofu parce que sa jabar daf la xatal si kër gi mais un homme lan lay jëriñ si biir kër Sénégal li ñuy waxee góor mhm. ñun ñoo yor lépp jigéen ñi dañuy dem ba ne ni seen kii sëggee noonu lañ sëggee mais pourquoi en tant que responsable doo war sa jabar mhm. nga toog ak moom comme waajooju dugg sànq ne ko mais yow qu'est-ce qu'il y a mais Safia nee na def na ko defal naa nit nit na man foofu laay waxee su fekkee def naa benn yoon ma woo la ne la mais yow remarqué naa bi ma amul tu étais bien léegi am naa yëpp a nga am problème qu'est-ce qu'il benn tontuwam ma ñëwaat ngay continuer dem ma indi say waajur ñu teg mais ñetteel bi ma ne leen xam nga lan la je ne vais pas rester là à polémiquer wala rester là à perdre temps dama bëgg a man tamit. Mhm. may naa ko baatam. d' accord xam nga Sofia. yaa ngi dégg d' accord dañuy d' accord si yow Oustaz damay may naa ko baatam donc. dafa bëgg nañ wax loo loo xam ne man maa ko wax man maa ne. Mm, mm, mm. noo takk jabar nekk moom si biir kër problème am na fajee ko par beneen jabar. kooku kenn santaane ko yàlla santaane ko. du yoon ayca Maomu dama war a dem publicité ñu déglu la tuuti. waaw dëgg la ma dellu si waat di rafetlu woote Imaam Ablaye gi. Mm-hmm. ci laaj bi macha allah taaliba Cheikh la ñoo bokk daara ji. Mm-hmm. ba pare bokk euh, sunu xalifa Sall. Mm-hmm. combat yëpp on était ensemble tabaraka allah macha allah. ma di ko rafetlu di rafet lu intervention. di ko di ko eh, wax jaaraa boot li ko lébu yi di waxee. Mm-hmm. parce que tabaarkalla macha allah sunu moroomu jigéen. Mm-hmm. la gërëm. Mm-hmm. kon dolli sant yàlla bu baax alhamdulilah di ñaan nag sama moroomu jigéen ñi. ñëpp yàlla nañ ko ñu roy. ci ci jigéen jooju. mais li ñu wax rek gis nga sëy. nee na dañu war a defal formation xale yi. formation muy góor di jigéen nag. parce que la taxaan ngay sëy lan moo tax ngay dugg sëy njëkk. xam nga parfois am na xale boo xamante ne nee na lu ko neexoon soloon robu marié toog si kaw lal bi loolu moo xewoon <laughs> loolu moo xew moo tax mu bugg sëy mais bi mu duggee gis na ni daal mënul def ak waa parce que xamul luy sëy xëy na peut-être nekkul woon nekkul si famille boo xamante ni sëykat a nga fa pour war a xam lan moo war a tax mu dugg si sëy mais ñu ngi wax abandon euh, jigéen bu jigéen bu abandonné jëkkëram si biir këram mais góor aussi dina abandonné jigéen si fan góor ak jigéen sax dañ koy def dinañ abandonante si feebar su taxawee wala ñàkk mën am am na góor ñoo xamante ni dañuy topp jigéen ngir alal ñu dem ba gis ni ndaw si yoratul dara ñu génn fa wala ñu abandonné bàyyi la fa comme dana am si jigéen aussi buy jouer le même rôle dugg naa si kii xaalis bi bari na maa ngi noos wëlbatiku abandonné euh, euh, wëlbati ko abandonné. mais c'est ñoom 10 ans amoon. ñu bala li gën a métti nag mooy. Mhm. nga feebar. Mhm. te feebar surtout ñun jigéen ñi la dinañ ko def góor de mais jigéen la ñu ëpp li ñuy abandonné si feebar. ah kañ. dañuy takki ndax gis nga prospère. dafa am benn feebar boo xam ne day faral di dal jigéen suy jur doom. Mhm. ñu di ko wax fistule. mooy la jigéen euh, dootoo mën a téye sa sa ndox. ku ko mënatul téye nooy def. muy saw couche. dafay metti am na góor ñoo xamante dootuñu xajook yow. dañu lay abandonné bàyyi la ak sa feebar. ordonnance suñu xamee sax fa nga nekk yóbbu ordonnance du faj seen sox day fréquence si jigéen buy am doom. comme it day am si góor góor dina toll fu muy feebare jigéen di ko abandonné abandon daal moo warul am ay nit ñuy dëkk. rawatina ñu bokk rawatina ay way dencante. muy góor di jigéen. muy góor di jigéen. ndax dañu war a sàmmante ndax àddina day dox de mm-hmm. te muy góor di jigéen yàlla boole leen ngeen sëy mm-hmm. yàlla def njaboot gi taxaw même bu dee benn doom wala sax même bu si njaboot amoon doom ju dellu sax su si amee mm-hmm. même boo leen tàggooyee bés boo leen dajee di nga ne kii kii diw la kii diw la koo tax moo tax ñu war a mën a sàmmante ànd te yàlla tax bañ a dugal euh, abandon bàyyante noonu ay doomu aadama war a ñoo bàyyante Mm-hmm. ay doomu aadama war a ñoo bàyyante man nag li may wax toujours rek ban jigéen laa mun supporté jigéen bi nga xam dafa abandonné jëkkëram ndax am na si ndaw soo xamante ne bi mu sëy jëkkëram war na ba ñaar fukki at ba léegi sëyiwul toppatoowul jëkkëram mm. ma nga toog su ne jëkkër ji immo la koy def lu mu bëgg la jëkkër ji def mm-hmm. ba jëkkër ji amul doy na waar ëllëg xalaat na njaboot gi njaboot gi yaakaar nga ne suñu demee dinañ sëy ni sama yaay nii la sëyee woon nii laay sëyee sëy du du contrat de sëy du contrat yàlla moo ko njëkk gërëm ni dencante leen oustaz su ma waxul nga ne ma amul yàlla moo ne way dencante leen am si njaboot fonkante sàmmante la woon dem mënul doon tey jigéen ñëw nañ la jël sa jëmm day soppiku sa yaram yow lay njëkk sa yaram di njëkk soppiku ngay ëmb di wasin lu bari di soppiku si yow lu bari di si yow ñu xëy bay abandonné la ndax ni nga soppi ko man da nga dem takk ñaaree la ma gënal nga di ma abandonné hmm. bàyyi la njaboot gi ñu war ba ko góor nga nekk sa boroom kër mu mënoon si dooleem di la defal waxuma waxuma kàttan doole moo ci ëpp nag alal dama lay wax alal ji mu am mën parce que am na jigéen ñoo xamante ni lenn rek mooy seen ite góor bu am xaalis ñu seel la soo jeexalee ñu bàyyi la fi wutiwaat keneen am na. am na fi am na jigéen ñoo xam ne ñu leen di wàññil ay juróom-ñetti jëkkër te jëkkër juñ si wàññi buñ si tudd. mën na tabaarkalla macha allah dafa mënoon booram. mën na boppam waaw. am na ñoo xamante ne vice boobu lañuy ñuy sëyee kon aussi am na si góor mais góor bu dem ba mu feebar daal su ñëwee si couple. feebar su ñëwee si couple. mënalante. dañu war a muñalante xam ne lu yàlla tegale te mun na koo teggi ñaan yàlla mu teggi ñu ànd. mais dafay am dafay am euh, dafay am waaw bari na ci nag. am na ci ay góor yi am na ci ay góor. jigéen am doom sax day toog. déedéet am na ci ay góor am na ci ay góor. am na ci euh, ay góor oustaz bu ma ma doon may tuuti ma daaneel. Benoît dafa wax léegi lu lu ma fàtte lu ma bëggoon wax xaw mu ah, fàttali ma ko. muy jigéen juy sëy te amoo doom. jëkkër ji ne ñaare. jigéen juy sëy te amoo doom man waxuma sax waxu ñaareel léeg-léeg. c'est pas s'il te plaît. waaw léegi euh, point boobu importance. Mhm. léegi da ngeen ñuy may ñu dem publicité bu ñu ñëwee. ñu taxaw si parce que ku ci nekk di nga ci am li nga xam ne. moom mooy sa point de vue parce que di sëy ay at am na ñoo xam dañuy sëy 10 ans du ñu am doom te. dañ dañ la dul may jàmm sax bu dul sa jëkkër sax di sa famille jëkkër donc oustaz bàyyi ma dem publicité su ma ñëwaatee comme ça ñu yeggale ko. on jaajëf waay sama gars yi. Eh, moom grand pardon yoroo foofu 500 ma mottali jënd forfait. <laughs> mu ne. yaa ma gën a xam faaw li takkale ya. looy takkale te espresso dil bi ne fi. dil bi. laala kool bi. étoile. waaw 11 11. waaw jazz. tapel 1. xoola wàññi nañ la. xool naa ko. na sa forfait dégg jàmm. ma est-ce que. yaa tardé activé naa ko ba ñu wàññi noonu ba ma desee wecc. kon bu ma jox la. déedéet nice demal demal. demal ma waaw ak deal bi Expresso day feddali ko lëreem ci yéen saa yoo jëndee forfait ci étoile 11 11 dièse bésal 1 daal di am wàññi yu xéewale tàmbalee ci 10 50 ba noos. Partagez un moment de détente. Partagez un moment de joie quand on a besoin d'énergie et de bien Rien de mieux qu'un yaourt Limlac. Pour une bonne digestion ou par pure gourmandise, faites le plein de vitamines et de calcium avec les yaourts Rimlac. Avec ses 6 yaourts aux fruits ou aux céréales et son yaourt nature, Rimlac convient à tous les goûts. Rimlac, un produit de la marque Atlantique, santé et nutrition. suñu maam bàyyi yu rafet ci ñu ràññee mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo ñu moomu toon xam sa bopp gën wax la ki nga doon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu ñu ràññee jikko yu rafet yi ñu ràññeewoon sama gaañaa waaw waaw <laughs> exactement zéro heure passée de 49 minutes euh, sur Sen TV ayca di nuyu di ziar képp koo xam ne yaa ngi bàyyi <laughs> xel télé bii di Sen TV bu ñu posé ci lay gën a neex bu ñu posé émission boo posé ci lay gën a neex ayca dañuy profité nuyu bu baax <laughs> nuyu bu baax suñu xarit ah taalibi Serigne Saliou Mouhamed Niang ñu ngi koy ziar di ko bëggee bu baax a baax moom dafa dafa dafay seetaan émission bi tout le temps di ko masawu ci événement bi aussi nga xam ne à cause de cette maladie cette pandémie dañ ko euh, euh, bàyyi ba beneen donc ñu ngi lay masa bu baax frère maa ngi lay ziar di ziar madame toute la famille Mouhamed maa ngi lay bëggee <laughs> di la ziar oustaz oustaz plateau bi de comme ñuy ngénte xam nga booy ngénte <laughs> booy ngénte <laughs> booy ngénte mat mataay bi da ngay sol soir nga simi sa beneen yére. def deuxième attaque <laughs> bi ay deuxième attaque laa fi gis. Prospère de def na deuxième attaque nga ni. gisagoo dara yow. bugaan ci lu ñu dugal nii papa papa tamit ah. da nga sañse bu mu ëpp. Oh. oh je suis contente. eh ah, oustaz loo nga ma. Fall ki ma habillé comme ça. macha allah.

daf may saaga ndey di saaga télé bi ndey di ma saaga ndey gis nga ni ni nga ko defee ay xaqataay dëkk ci lool waaye man am na ñu mun a xaritay ñoo xam ne yàlla tere may saaga ndey déedéet ñun duñu d'accord ñu lay saaga daf may saaga depuis ma ne y a des agresseurs yoo xam ne dañuy taxaw way tekk dañuy taxaw gendarme yi taxaw ñuy agressé di offensé gendarme yi depuis boobu ba léegi day taxaw di ma saaga ndey tey ba xaw ma lan la kenn mënu ci dara xëy na réew mi moo demee noonu. Mm. mais tey am na autorité yoo xam ne su leen ko defoon fu mu dugg tey dinañ ko génnee. muy le 76 925 19 08 daf may saaga ndey di saaga télé bi ndey. bis bu nekk. xam naa moom na mu doon def ak Ahmed Aïdara ak ñoom Mamadou Mansour noonu lay defar. yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na jërëjëf. man mi ngi nii Sofia gis na ko woon ma léegi. waaw Père ñun d'accord waaw waaw dem bi may la benn affaire moo ñu def rek mais du leneen. ku ñu saaga sa yaay am lu la met Père man mii wax ak yow nii. li su neexoon Macky Sall mu leen tey. non non ma Macky Sall mu ngi doon. ko. Papa sa micro. Macky dañ koy. Papa képpal sa micro bi nga bëgg fi nekk nag di def lu sax. naqari na ma toog ki baax na baax na benn dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat ci yéen ñëpp. nañ ko keroog. ayca yàlla baax mais Sofia defu leen dara. voilà kon boog nga xam ne saaga. defu leen dara les ñi saaga. mais liggéey non non il faut aussi que ñu comprendre benn affaire. nit ñi yemuñu. non ñi toog seen kër mais man daa jommi naan man daal man daal lii daal musu. kenn saagawu leen ndax kenn xamu leen mais bu fekkee da nga jël métier bi mu doon sa métier. franchement loolu mënut a ñàkk. donc dañ koy sant yàlla rek. Oustaz Oustaz ñu bàyyi la kàddu gi. di la di la di la di la gërëm bu baax ci ni nga sañsalee suñu suñu waajur. macha allah kontaan ah, nañu bu baax a baax kontaan nañu jasner bi. waaw mu ngi noonu. <laughs> li mooy mais papa papa gis nga papa gis nga gis nga prospère tamit gis nga prospère yéen ñaar da ngeen changé yéen. pros moom du papa ko la jógee waaw wax nga dëgg pros dafa changé. dafa eh, changé ko la jógee yow lay defanteel. ah yow lay defanteel. Eh, non pros sax ñu dee def fi mu ne. Ah. <laughs> amul yére amul yére amul yére. Ah, yaa ngi Sénégal nekk ah, ba yal na la yàlla sëñ Tuba wodd yow yal na la yàlla wodd ci barke borom Tuba yal na la yàlla wodd waaw gis nga de li ma defal duggul ndox mi ngi xëy xun papa Fall da nga sañ sa man kontaan naa non non non ñëpp kontaan non bu gaan ngay dañu sax kontaan na kontaan nañ bu baax waaw mais père bu wax xëy xun xun dafa xeet neex kii ba xeetu jas neex xëyul xëy xun du xun na neexul père mooy li ma doon wax rek hmm. oustaz Modou Fall li mu def. day wane Sénégal ñu benn la. wallaay dëgg la kii musuma jot kii. non non non waxuma loolu. parce que am na ñoo xam ne. yéene bu rafet bi mu def. dañ ko war a ñaanal sant ko. wallaay bu fekkee loo xam ne si àdduna. <laughs> macha allah vraiment vraiment vraiment solal la taxaw lii dafa baax dafa neex si xol. dama ne péage bi laa jaar tey ñu ne ma oto même téye woon. waaw waa Régis war na la may tàcc bi rek ñu tàcc. oustaz waaw mais tàcc bi te da koy da koy catu daal toogal nii papa da nga sañse. da nga sañse toogal yow salone. <laughs> d'accord te xoolal Mohamed Niang tamit dina la jox Desner nga sañse. waaw waaw Desner bu baax couleur bu baax. ayca moom dinaa ñëw ci moom léegi moom dafa sañse moom ëpp ñëwoon. Euh, Sophia. balaa maa fàtte maa ngi gërëm imaam lay géey ñu ngi koy ziar bu baax ci dugg bu am solo bi nga xam ne dugg na ko ci émission bi. le Derklé. di ko ñaanal yàlla bu baax yal na ko yàlla sàmm. amiin amiin ak euh, njabootam yépp ci barke yonent bi sa alayhi wa sallam amiin amiin père nag lii ñu ko defal wax dëgg yàlla yéene nañ ko lu ko ëpp wallaahi dëgg la de ñu la ku ñu wallaahi wallaahi xam naa loolu ndax saa yu ñu toogeek moom ñu ngi bàyyi xel ni sunu bàyyi la ñu toogal cër boobu du ñu dañ mukk ci di ko ko jox wax na dëgg wallaahi kon nag ñu ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla yàggal taxawaayam waaw di nuyu waa kër mbay maane mbub yëpp waaw li ma li may dénk père rek mm-hmm. mooy man bi ne dañ may saaga. di ko annoncé sax daf maa jëlee kaw. wallaahi parce que li tax mu jëlee ma kaw mooy. Hmm? mooy numéro bi. jàppoon naa ni père. dépassé na fu ñu koy saagaa mu koy métti. non métti wu ma sax mais dama dootul nelaw. père may ma deux minutes parce que ki opté feeñ. wallaay ci télé ak média. Hmm. waratu la bañ saaga. Ah, mm-hmm. parce que réew mi amul kuñ dul saaga. ki gisuma ko fi demal gisuma ko de. saaga saaga. ak ku siiw. ñoo ànd. boo xasee siiw ci réew mi Facebook bi boo ci duggee boo gisee 1000 commentaires 590 yëpp ay saaga la. Mm, kooku dëgg la. léegi nag yow yaay dem ba am mat gu doy ni bul faale tagg ak xas. Mm-hmm. ndax ci Sénégal bu ci ñëw moroom maa ngi ñëw. man de yàlla mi ma tiim amul saaga mbaa critique mbaa xas. boo xam ne ferege na ma ñeente amut. wallaahi yëguma ko. da ngay tëdd nelaw parce que li ma gis mooy li may def maa ngi ci. mais metti na ko nag parce que mag la. su ma ci sénégalais il faut ñu am yar. damay tëdd ba nelaw mu mu téléphoné ma mu saaga. non day xaar ba xaaju guddi mu ma saaga télé bi di sa. sunu kilifa diine yi nu am yaakaar leen. bis bu ne nga gis ku génn def declaration ñu dugal ko Facebook. dëgg la nga gis àddunay saaga ci commentaire yi. dëgg la parce que am na ñoo xam ne yaru. ba ilaa yow mi diin yaru fonk ñu seen i way jur. te ki nga xam ne dundam neexu ko. Mhm. ala kulli xaalin mu wane ko. mënoo ci dara. dëgg la oustaz mais imam dafa wax lu am solo xam nga Sofia. Mhm. man su ma ñëwee ci émission bi ñaar lenn ma fi indi. Mhm. mooy xool li yàlla wax. ma wax ko. bu doon gis-gis ak commentaire rek damay bàyyi. sama copain mii nga xam ne moom <laughs> ay xalaatam dama yaakaar dafa tuxu Gambie dëkk fa wala Mali wala beneen dëkk tagaay gars yi ko non États-Unis la nekkoon nag vingt-sept ans la fa def <laughs> moo tax su ma ñëwee fii lan la alquran wax wala lan la diine wax moo ma fi indi mhm. Sofia li soxna si wax sànq ni jigéen ñi dañu war a roy Sayyidatuna Khadija mhm. ëppal nga dafa dafa tumuranke mhm. li mu wax sànq ni xaar may ma jaaga wax na ni ni ñu daan sëyee jigéen ñi léegi sëyee tour noonu loolu mooy dëgg mm-hmm. Sofia génération bii mujjee ñëw ñaar mooy seen bëgg-bëgg moom lañ xinte woo mm-hmm. xeesal ba mel ni puune mm-hmm. ak concours fecc xamuñu nu ñuy xamuñu nu ñuy toggee koo ca gis ma nga yar ay weewam ba mu toll ni lu ma la mënta wax mënul benn palaa moo tax souvent ngay gis jigéen jànqam feebar wala ñaari fan xëy siwul mu mel ni ku ku ku doon liggéey maçon mm-hmm. ndax tàmmul liggéey xamu ko respecté wuñu ñu ñuy sëyal respecté wuñu seeni goro mm-hmm. xamuñu teel a yeewu Sofia jigéen juy nelaw ba midi tanga ni da ngay sëy ci kër mm-hmm. nelaw ba midi ba sa goro dana yeewu la nga war a def yow moo la koy defal parce que bëggul coow am na goro yoo xam ne lu ne ñi ngi koy muñ te seen doo seen jabar yi ñi nu takk seen doom yi ñi nu takk sëyuñu <laughs> bu njëkk jigéen ñi dañ daan yeewu fajar lay mbedd mi toppatoo sa goro ndax ndékki na mais loolu toppatootuñ ko ku ci yeewu midi mm. li li ngay xinte woo mooy sa pain ak sa beurre ak lan cay def yow la concerné mais sa goro ndékki na intéressé wu la mm-hmm. sa jëkkër ndékki na intéressé wu la <laughs> viwu tubaab la ñu xam yar seeni we épilé dem xew abbu téléphone sinap tiitaru jaayante taar mais concentré wu ci sëy def na ko def ko na la ko yàlla sante ñu néew ci jigéen ñi ñoo koy def hmm. jigéen moo war a xëy defaral gorom ndey waaw bu fekkee bëgg na barke ki nga ni da koo bëgg an sa ndey ak sa baay mais tu vis pas avec tu vis avec mais loolu kenn wax ko si biir sëy bi mais boo ko def ko du la wàññi dara boo ko mënee def ko du la wàññi dara mais c'est pas o léegi on est au Sénégal bàyyi leen on o au Sénégal. non non mais on Sénégal même on est au Sénégal. léegi Benoît c'est pas forcé. léegi Benoît c'est pas forcé. c'est pas forcé pour defaral sa jëkkëru jëkk sa yaayu jëkkër ndekki chaque jour. c'est pas c'est pas forcé. <laughs> ku ci bëgg na ànd mun na nga ko def boo ko mënul bul ko def. ay ca oustaz. léegi dama lay ñaan benn affaire. la ilaha mooy su ma waxee ba daaneel. non dañuy interchanger. waaw mais man dama bëgg rek. bon waa li nga wax bàyyi la yow nga jël sa temps commentaire ci li ma wax. d'accord ok ay bon waa ok. yaa ngi dégg. Mhm. su fekkee jigéen nga. Mhm. bëgg barke. ki nga ni da koo bëgg ba ñëw sëyil ko. soo gisee yaayam da nga ko bëggaale. normalement lépp loo xamante ni bii boo ko defalee yaayam yaayam bëgg ci. Mhm. waroo xool ndax bëgg na ko wala bëgg ko. mën a bokkul da nga ko def ci sa mbégte borom kër la dëgg la. te amul benn jigéen nag laa la wax ci mhm. Sénégal. Mhm. bu ñuy muur muy sëy ji. ne ko eh ñu ngi lay muur. nga ni waaw ñu ne la boo àggee bul defaral sa goro ndékki. parce que santuñu la ko. kenn waxu ko. bu doon lu baax. kenn waxu ko. waaw man wax la yow léegi looy jooy yow. léegi lan la vas-y kenn ko. xam nga loolu kenn du ko digal jigéen. xam nga lu tax parce que baaxul. lu ñu lay wax ka nga fekk jàppee ko comme sa yaay. waaw comme boo nekkee ci kër gi sa yeegoo lu sa yaay bëgg da ca xar sa tànk tubay. Mm-hmm. da ngay fekkee xool ko comme bët bi ngay xool sa yaay. Mm-hmm. soo ko defee danga am jàmm. en toute mm-hmm. sa jëkkër dana toog gis la ni ngay toppatoowee yaayam mu bëgg ci loolu ba ñaanal la. dëgg am na góor ñoo xam ne ku teral seen yaay ñu téye la. dëgg la am na góor ñoo xam ne ku teddadil seen yaay ñu bàyyi la. dëgg la noonu la nu mel. parce que seen yaay la nu am. jigéen ñi Sénégal ñooy nelaw ba 11h di doog a yeewu mbaa midi ak yan jigéenam. waaw mais ñenn ñi du ñëpp. waaw ah, pas am na ñoo xam ne seen goro xam nga fan lay dajeeg ñoom ci añukaay bi. Mhm. duñ duñ ko gis duñ ko toppatoo bu nu génnee ci mbedd mi di ko xas. loolu baaxul. am na ñoo xam noonu la ñuy sëyee. Mhm. loolu rafetul est-ce que loolu lan ñu sant. no loolu rafetul am na góor ñoo xam ne thème bii ñuy waxtaane tey. Mhm. li tax ñuy abandonné seen jabar seeni jabar a ko def. te abandonné du lu nu bañ charia alquran moo ñu digal ni ñu. fa saalihaatu xaanitaatun xaafidaatun lil xaybi bi maa xafida allah wallaati taqaafuuna nusuusahunna fa iduhunna yàlla nee na sa jëg sa jabar su defee naka su dul noonu waar ko su soppikuwul nga abandonné ko mooy wëx juruhunna bu la indilee añ nga ni ko jaar naa kër père may góone falaa mhm. añee suur naa gedd bu la indilee ataaya nga ni ko jaar naa kër prospère falaa naanee ataaya bu tëdd jotee nga féete la ko say tànk jox fële sa bopp bi abandonné ko pour combien de temps ba keroog muy ba keroog ngay gis ne mën na changé. Ah, amul ab ba keroog ngay gis bu ndaw si demee ba yëg ni am na lu ko metti mu ne la alaaji nag tey waxtaan jot na nga ni ko lu xew. mu ne la dama gis nga am noo comporté woo te daawoo ko def mu ne la nangam ak nangam moo tax ma def xam nga pourquoi alquran tegalal la charte yi dafa bëgg solution dafa bëgg saafara moo tax mën na la jaaral fii ak fii am na koo xam ne nag boo ko abandonné day defanteeg yow danaan téye na boppam duma ko fekk si xëy na fas kanamam du maa koy nuyu di defanteeg moom alxuraan nee na bu continuer ci li nga koy teree mhm. su boobaa wool ay mbokkam ñu ñëw fa baasu xakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ñu toog ci saal bi nga ni leen kii kat maa ko takkoon ci farata yàlla ak sunna sayyidina muhammad yéen a ma ko joxoon yor naa ko nag bësës li ma koy tere mënu cee bàyyi dara nii muy dundee ak man mënatuma cee continuer moom ay mbokkam wax ak moom su ay mbokkam ñibbee ndaw si continuer ca lan ko doon tere alquran nee na in yurida islaahan yuwaffiqillahu baynahuma soo mënatula continuer ak moom woo ko ba mu ñëw ni ko fase naa la mu takk ay bagage dem dimanche nga ko fase lundi nga koy takk jabar. waaw mais ma laaj la parce que góor du tënji. ma laaj daal góor du jàpp idda. fase dimanche takki lundi. ayul. da nga wax ne. waaw mais oustaz su dee su jigéen bi la ñu topp toowul nag. yow noo ko tuddee faj mer oustaz oustaz. yow noo ko faj mer. Mhm. newuma jigéen boo sëy si kër bul defal sa borom ah. mais waxoo si goro yi nga xam ne dañuy abuser si seen jabaru doom. laaj ma ci. bon maa ngi non du ma la si laaj parce que da nga ko tëb. mais parce que sens bi laay wax. non sens bi ngay wax non. sens bi ngay wax moo tax ma ne la. man su ma jëlee parole di wax. Benoît loolu loolu bokkul si alxuraan. Benoît lan moo bokkul si alxuraan. kër ma yàqu si sëy ki ngay sëyal binduñu fenn si alxuraan. Ah. que sa goro da nga war a yeewu di koy defaral ndekki kooku ñun ñoo ko si dugal par mesure de respect parce que dañ la ne booy sëy ki nga fa fekk jàppee ko comme sa yaay. d'accord mais bari na luy am ci sëy mhm. te kenn tudd ko ci alxuraan wante lu rafet la rek waaw même ma wax la. waaw muur bi ngay muur ndaw si. teg ko ci taxi bi di ko yóbbu. muy jàppoo dugub la xawma ma. ngeen di wër néeg bi yéen ñaar. di raame. di raame bàjjen bi jiitu. yooyu yëpp ñëwul ci alquran séddale bi ñuy sëddale gura ci jàkk ji mm. ñëwul ci alquran dëgg la séddale bi ñuy séddale miskit ñëwul ci alquran mm. mm. jàkk ji ñuy dajaloo di takk sëy bi ñëwul ci alquran mm-hmm. bu fekkee ci cause boobu la lépp ngay dindi parce que dara ñëwu ci ci alquran mais dafam loo xamante ni bii mag ñu baax ñi fi nekkoon jiituñu ci fi xa gën ñoo xam àdduna gën ñoo xam sharia mhm. gën ñoo xam diine la ñu nekkoon juguñu ci aada mën na ñëw mais mën na nekk aada bu rafet waaw aada bu rafet ci réew mi nga toog na si ar ngay wax déedéet waxuma la lool de a lii nee neewu ma la lii ma lay wax alquran la man lu ma lay wax damay xool ci 114 saar yi ma jàng est-ce que am na ci wala amu ci. waaw d'accord ci lu ci nekkul nag ma ne la lii du alquran mais mag ñi jàpp nañ ne lu rafet la daan nañ ko def te war nañu roy ci loolu. ak yow mais dama bëgg boo waxee si côté positif bi nga xam ne jigéen bi day jóg defaral boroom lépp nga wax si côté négatif bi nga xam ne beaucoup def femmes suuf parce que seen goro dañ leen di mbumbal di leen def looloo xam ne esclavage sax daan leen ko def. mais parce que da koy def boo ko deful seen doom fase la. mais loolu am na. daf fi bari kenn wérante wu ko waaw bari na fi ñaari sens yépp a am bari am na jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañu bi muy ñëw ci kër gi intention sëy nañu am mm-hmm. mais goro ba ñu dajeel <laughs> accepté wu leen. Mhm. parce que du seen mbokk. ñu ne ko toogal yenn saa yi nga dégg ko ne la booy aawa da ngay aawaloo sa mbokk. te loolu amul ci alxuraan mais aada la. am na ñoo xam ne tey bu ñu. ñoom keer ñoo am na ñoo xam ne tey bu ñu takkee ku dul seen mbokk. bu ñëwee ci kër gi danañu ko bunduxatal ba mu dem. dëgg la parce que maire bi nekk ak moom gëmul ku dul mbokkam. mbokkam la bëgg santoon na ko ni ko takkal sa doomu bàjjen diw mu bañ. santal sa doomu ay diw takk ko mu bañ. Mhm. keneen ka mu lijjanti ba indi ko bu ñëwee sër yeeg frère yeeg mm-hmm. kenn du ko mën a bëgg parce que bokkul ci famille bi mm-hmm. bu ñu dee waxtaan waxtaanu biir néeg bu dugg see dañuy noppi mm-hmm. teg ko yoo xamante ni bi charia santaane wu ko loolu kenn werante wu ko mais dama ni man sens bi nu ma joxee parole pour ma wax ci la amoon démb bërki démb amatul jigéenu léegi ñii wow nañu bët non bari na wow nañu bët. am nañu fit pare na bëgg nañu ay bëgg-bëgg. am nañu fit am nañu fit. Mhm. dëgër nañu fit. Mhm. lu leen si may danañ ko. Sénégal li buur bu ñàkk fay ne sa jabar jàkkaarloog yow nan la. yow sa yaay ni mu seytaanee. oustaz nga ni kaw ka weeral di ko. wallaahi oustaz sa yaay ni mu seytaanee ah, nga ni yegg naa doon. oustaz <laughs> mais jigéen ñi abaa doo may ma dellu côté bële parce que fii laa jógee s'il te plaît. depuis début émission bi. Ah. tu blâmes que les femmes. waaye yow. waaw mais c'est son point de vue. non non tu vas pas l'inciter à parler de parce que li muy wax. et mais il a raison. non defal na on va parler des deux côtés. waaw mais moom mi ngi wax ci benn côté dafa keneen wax lu mu bëgg a wax. sànq dafa bëgg jigéen. ma ne dafa bëgg jigéen. ku ko may ku ko may sànq bëgg jigéen. sànq nee naa góor. boo nekkee sa dëgg nga motal sa lépp sa jigéen di lay toog Safia sànq nee naa boo motalee sa lépp man lépp laa joxe exemple mais oustaz j'ai vu depuis le début de l'émission oh. il fait que fusiller les femmes. waaw daa bëgg jigéen baax rek pour yow kii daf ma laaj sànq sondage fan um, laa ko jëlee fan nga um, jëlee nekk léegi jigéen ñi mais li mu wax dëgg la abandon des deux côtés mais on parle d'abandon des deux côtés les femmes sont abandonnées les femmes sont abandonnées de partout au Sénégal du góor yi du jigéen ñi quand on a dit on a dit quand le mari pose l'acte un de l'abandon quand le mari moom waxul si mari de waaw quand le mari pose l'acte de l'abandon voilà man maa dugal jigéen rek mais quand même góor la ñu quand le mari lan la ñu wax waaw liiral. quand le mari cause l'acte un mais waaw léegi léegi ci yéen laa jógee bàyyi leen ma dem fee maa ngi ñëwaat d'accord. ok seen coalition bi yéen ñaar da ngeen a tàng jër prospère. ay ñu daa ñu ñu ñu delloo la kàddu gi mais juste ah par rapport par rapport ak euh, li oustaz wax sànq. Mm-hmm. xam nga dafa ne par rapport ak toppatoo sa goro. Mm-hmm. benn laaj ko ba xam loolu c'est forcé. Mm-hmm. ki ngay toppatoo. dafa nekk sa waajuru borom kër te mhm. amaana booy sëy da bëgg li neex sa borom kër mhm. te li neex sa borom kër si si ay waajuram soo ko fa jaaralee je pense que day gën a yomb wallaay jaata merci beaucoup madame Diallo bon bon bon bonne analyse mhm. li tax ma wax bonne analyse mooy c'est-à-dire man dama bëgg nit lu muy woote ci boppam na ko nuroo boo demee def ko ni sa yaay boo demee def ko ni sa baay mais tegalatoo sa goro sa yaay ngay tegal tegalatoo sa sa sa sa sa goro sa pa sa sa baay ngay tegal. dëgg la eh, eh, eh, attention parce que boo gëmee ne kii kat sa place yaay laa ko teg goro dootul taxaw sa kanam yow. yaay mooy tax ba nga naan ah parce que question yi nga dul posé yow bu sa yaay jàkkaarloog yow. les mêmes questions war ko posé wu boo jàppee ne kii yaay nga ko jàppee. Mm-hmm. à moins que ce soit que ce te yàlla moo tax su ma tegee place yaay traité la du ma du ma ne su ma tourné bu ma yeewoo ne la yaay. alors que goro laa lay jàppee wàññi surdin bi tuuti rek dafa fort. alors que goro laa la ma saa yu xëyee ne la papa alors que il faut qu'on soit sérieux aussi. loolu tax li nga wax am solo. soo gisul lu dul yaay yow sa yoon nekkul ci alxuraan la du alxuraan force la ak du force yaay la rek. ou alors jàppee ko comme yaay comme li oustaz si wax mën naa jàkkaarloo sa jëkkër ne la sa yaay moo gën a seytaane ci bi nga ne booy sara bi ok xam naa da koy rek bon parce que pourquoi ma wax loolu parce que dama seet depuis le début de l'émission je suis désolé Ben je ne réponds pas à la place de oustaz euh, Modou mais Modou Fall bi mu commencé discours am ci góor abandonné ak caay-caay la njëkkee dégguma ko foofu moo nekk. yow foo nekk. fii la fekk mu dugg dama ne depuis nañu seetaanaat émission bi. depuis le loolu ubbee moom. depuis le début. ni abandonné fi ak jaay ca tukku ci jaay jaay rek. mais ouvrir pour deux secondes cinq secondes. non non non il en a pas ah, waxalal sa bopp ba tey ba tey waxalal sa bopp. ba tey dama bëgg rek boo ko riwaanee. non yow boo ko riwaanee nga seetaan. ay ca ay ca prospère dama war a dem ci perte te di nekk seen émission bu bëriwul. effectivement non non parce que aussi nañu wax dëgg te yàlla tax. ce que je ne comprends pas pour benn moo di moom il fait allusion à Dieu bu ko arrangé c'est faux. je m'explique. ok da nga ne moo fi ne. waaw ku lu lu soxna si wax sànq lu am solo. mooy. mooy. Uh-huh. na jigéen ñi am martaba euh, taxawaay boo xam ne góor ñi dañ leen yërëm. yaa wax loolu sànq yow nga ne pourquoi jigéenu Sénégal wala xaar ñu koy yërëm. oustaz yàlla ne. wa yow loolu yaa ma ciy jubbanti wa madda wala xaw ma raxma am na nu ñu ko waxee wa maryama bnat imran allati ahsanat farjaha waaw fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimati rabbihi wa kutubihi wa kaanat min alxaanitiin waaw mhm. góor góor bëggal waaw góor jigéen bëggal jigéen yërëmal góor yërëmal jigéen bëggal jigéen bëggal wa jaala baynakum mawaddatan wa raxma wax yàlla te pourtant sax bu soxna waxee soxna si waxee ne na jigéen am taxawaay bu ko góor yërëmee da nga ne pourquoi góor jigéen taxaw fu ñu koy yërëmee. man yow kon yow kon comprendre li ma wax. waaw kon waaw peut-être. waaw ah, d'accord parce que tu es trop pertinent pour. bàyyi bàyyi bàyyi su may wax nga jël sama wax dëpp ko. dama dégg te bi may wax xamoo fi ma. non non déglu rek vas-y vas-y non dëpp ma dara. yow ci ci ci ci soxna si moo wax ne toog di déglu Benoît à l'envers. ah si j'étais à j'étais à l'œil benn. ah non tu m'écoutes à l'envers. non j'étais à l'œil. non non non non li ma wax ci plateau bi ma la wax. soxna si moo wax ne na jigéen ñi am taxawaay bu leen góor ñi yërëmee yow nga gañ ne pourquoi jigéen war a toll fu ñu koy yërëmee kooku façon de parler waaw ah, non moom laa wax façon parler boobu nag laay répété yàlla moo ne euh, jigéen yërëm jigéen bëggal góor yërëmal mm-hmm. tout samay wax yàlla da ngay jël léppam wala nga ba léppam mm-hmm. loolu laa gëm man dëgg la doo ci def allusion rek bu la arrangé yow gëmoo ko ba tey d' accord jërëjëf ko. dëgg la merci ba tey d' accord naa nangul naa la loolu. parce que bul tourner samay wax. ah nangul nangul nangul naa la loolu benn il faut ñu déglu tuuti. nangul naa la loolu. loolu nga wax noonu gëwuma yàlla loolu lu ñuy la yow la maag yow su fekkee ne xaj na si yombal xiyaam rek. dama ne gëmoo ko parce que yaa ngi may tuumaal fa <laughs> ko parce que li ma wax waxuma lool ak fi ma ko waxee. Prospère Aïcha. donc man fi ma revenir mooy gis nga sànq yaa ngi posé question boobu ci nga li nga xam ne euh, jaaxle na euh, ci naka la nit nekkee këram ñu di ko abandonné sànq soxna si dugg na wax lu am importance moo tax ma wax encore une fois ne dafa am thème yoo xam ne man suñ koy waxtaanee su jigéen su jigéen di wax dama koy déglu religieusement. parce que c'est des elle parle en connaissance de cause. Mm-hmm. yàlla def loolu ci plateau bi léegi jigéen dugg wax ko que ne bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax. ñun ñii bari na lu sooxee bari na li ngeen di waxtaanee jigéen am na ci part de responsabilité. parce que man xam nga lu ma gëm man dama gëm ne émission bi pour mu jariñe la. du plateau bu ñuy xeex du plateau bu ñuy xuloo du plateau bu ne ya yow wax nga liy góor ñi pendant cinq minutes dinaa wax liy jigéen ñi pendant dix minutes. yow yaay def loolu. c'est euh, euh, euh, Prosper ah, s'il vous plaît s'il si s'il vous plaît. man wax Prosper Benoît ngeen wax ci thème bi pour qu'on parce que liñ si temps ah bëriwul te on est en train de perdre du temps là avec franchement mun ngeen ñu ci. c'est pas des détails. waaw s'il te plaît Prosper demal comme ça ma dem ci perte temps bi li des bëriwul te dama war a jëlaat téléspectateurs yi waa Régis ñu ngi may la pourtant loolu abandon la parce que man dama gëm ne parce que li may wax c'est toujours dans le cadre de l'émission parce que su ñuy wax loo xam ne jaratul nit ñi pour man jarul wax donc il faut ñuy laal fi mu xam la méttee ku ci nekk defaraat toogaayam mu bénéfique comme ni mu ko waxee bénéfique ci jëkkër bénéfique ci jabar bénéfique ci ay doom loolu laa wax man. mais naa n'as pas prouvé ça parce que sànq nee naa jigéen boo xam ne dañ ko fekk fi muy wasi ne nga ne ma amul. non waxuma amul dama ne fan la am. am na kii na la am na en tant que médecin sage-femme ah, du loolu mais fekk jigéen muy wasin sax nga ne ko côté boobu fekk jigéen muy wasin nga ne ko takkal man bi ma fekkee woon bi ma fekkee woon du bàkkaar loolu amul gàncax gi des fois oustaz des fois si taabal lañ ko fekk. maire bi si taabal lañ ko euh, fekk fekk jigéen bi aussi ñaata ma ko gis. mais ba tey. mais amul désolé. non mais am na. je suis désolé c'est de l'exagération. waaw mais benn tax ñu ne ñaar on arrête aussi d'exagérer. tax ñu ne ñaar non non non. désolé maman Oumou Aïcha s'il te plaît. c'est de l'exagération. non non c'est pas de l'exagération quand même. Pros. Ah. wax noonu. damay duggee fi oustaz génnee ndax dafa ne faw jàmm du am ci kër gi li fii am maire bi amul li mu bëgg sa bàjjen diw demal ca doomam sa nijaay diw demal ca doomam diw ak diw seen ñaari bàyyi ñoom ñoo bokk bàyyi soo fa duggee mais dama ne ciaasi ndema nu ji saala calaw laj ndel na yàlla gelawaar ba teen ca ndeel ak njaay jaafuñ lat ndeel a paaraar damel teen amari ngoon a sobel borom kajoor ak bawol on a dépassé ça soo déggee naan ci yaasin demali sala jonga may làmbaay ji <laughs> ah. day bàjjenam ndeyam day bàjjenam ñu naan ci yaasin jonga may bu njëkk ba soo gisee keroog ba nuy wër wërloo ba ñëw déqale ba la joor jóg taxaw dana gaa ñi dégg ci xur wi ne waaw gaa ñaa ngi ci xur wi mu ne ana cendeel a ñabas ñu daw ne cendeel a ñabas ñëwal cendeel a ñëw waa léegi doo leen wàññi doo leen wàññi musique bi tuuti rek s'il vous plaît tuuti rek s'il vous plaît mu ne yéen ñi ànd ak man ñëpp tey ku ci bëgg sa bakkan demal nga dellu ca kër ga ndax tey du bisub dund bisub dee la wër-wërloo bi jeex na tey daje nañu fii ci muslaaju guya fari mbay ñu ngi di déq léegi jeex na ku bëgg na nga dem ñibbi ñu bare bari wàññeeku xam naa ci ay sant yoo xam ne tey su ma ko tuddoon. Mm. dëkk bi xeex daf fii am. dëgg la. nu won ginnaaw Lat Joor daal di dem Lat Joor geesu daal di ana Candeela Ñabas Candeela Ñabas dawlu Fatam daal di daw ñëw ne ko bàyyi mu ne ko waa yow dama laa gërëm sa ndey ci ab sëyam ci sama biir kër waaye ma ñeewantoo la ndax li ngay benn dong dong dong di ab càppaacoli amoo jigéen amoo rakk ju góor ma bëggoon nga dellu ca kër ga doon aw jiw mu xàmbar ni koo ci kaw fas yi daal di daanu mu ne daanu daa ragal lii de dagg garab bi lay tiit muy kanu gi ndax keroog tiré nañu ay kanu de six yoo xam ne doon koo dóor keroog tubaab bi xeex na ko ak la joor mu jóg taxaw ne ko bàyyi soo ma jurul wax ma ko sa doom yëpp nekk fii taxaw tànnoo ci kenn ku man nga xool ma te man ñabas sama ndey mu ne am ah mu ne ko jolof ga mu dëkk su piccum jolof naawee nu jam ko bala moo laal suuf samay nijaay jamaat ko nga di ma xool di ma tànn sama biir doom baay naan ma demal nga bi mhm. la joor ree daal di tàpp bopp bi. daa koy sama ndey jëm ngoone latin ba ma demee ba toll ci néegu góor ma ne ci sama néeg bii ngay aawaloo doo jëggaani fenn jabar xanaa ginnaaw boo duggee sama néeg bii soo duggee sama néeg ba pare nag fu la neex dama nga wut fa jabar nee na sama ndey bi bisub tey bii la ma doon fàggul ndax nee nañ soo jëlee sa mbokk jur sa bopp te soo juree sa bopp du daw mukk wàcc la ci toolub xare loolu tax daan takk mbokk mbokk da ngay jaxasoog moom ba su ëllëgee su ngeen dee xuloo du ngeen mën a xuus ndax jaxasoo bu ngeen jaxasoo mën naa laa limal ay ñoo xam ne ku ci nekk doon laa imposé nela sa mbokk ngay jël mais père loolu amatul léegi. dama ne moo tax lii am am. dara amul mu neex nga tas ñi daan sëy dañuy tas. déedéet du loolu sax. xale bu góor ba la yaayam di tànn fa muy tànn. dama ne maam Ibra Diagne ak Fane Diagne. yow fan lañ ko wax dama ne Abdou Kandi ak Daba Kandi. arrête am na ñu daan sëy di tas. dama ne le trésorier de l'État ak Fafa. non yow xoolal le trésorier de l'État ak Fafa. dama lay wax mbokk waaw bàyyi ma ko tànn. yow sa yu mbokk nga xool Abdou Kandi ak Daba Kandi. yow li maam Fatou Diagne. yow li ngay def yëfu racisme la. nga xool sama baay ak sama ndey. li ngay def soo takkee li ngay def yëfu racisme la. yëfu racisme de néew ma la bul takk ab jàmbur de. de si loolu ngay wax nii waxuma la loolu de. dama ne bul ma jaxase ak àdduna dama lay won ni mu amee important jël sa bopp li ma la wax dama ne li oustaz wax mënuloo koo dindi. kër gi du am jàmm ci kaw su doon démb la. maire bi dund. góor ngay dund. faaw doon ngay imposer nga di nga jël ci kër gi bala ngaa jël ah feneen loola daan indi tiraillement am alal. dama ne nga ne. jamono ji ñu toll maire yeeg paa yi ñoo naan la demal seet kee baayam am na sutura nga takki ko ndax nga amee fa dara moo xew jamono ji ñu toll. xaalis rek. waaw mais looloo xew. déedéet looloo xew léegi la nga wax démb weddi wuñ ko mais jamono ji looloo xew. man waxuma la man jamono bi nga lay wax. loolu xewu toll yow léegi nga ah, xew. yow yow yaa dund tey man dundu ma tey. ah dundoo tey yow man dundu ma tey. yaa ngi koy dundu waaw dundu ma tey. yaa ngi dund tey ragal ba bëgg a dee yoo xam ne doo takk ñaari soxna lan nga nga takk mag bul ma da nga ne kan nga takk sama mbokk ko sëppal yow boo koy déglu rek déglu rek déglu rek sama mbokk. sa mbokk dëgg la barke borom Touba. dëgg la yow dëgg la waaw déglu waaw déglu rek déglu déglu. yow li maam yi daan wax laa loo xam. waaw waaw d' accord waaw waaw d' accord déglu rek. ñu bàyyi yooyu. waaw d' accord waaw. xam nga lan moo lan moo lan moo ñu rey Sénégal. waaw boo àndee ak sa jabar di koy di foo ak moom sax ñu ne da nga ko ragal. wala da ngaa ragal jigéen d' accord d' accord instant émission bi instant émission bi jeex na tàkk ñaari soxna ñoo woo boole ñaari soxna ci génn kër ñoo woo boole ñaar ci génn kër laajal oustaz ñaat la. waay man ma xam oustaz mi ay soxnaam nekk yëmbal ma. oustaz oustaz waxal ferme arrière. Eh, bàyyi la léegi génn leen bu dee personnalité. xam nga sama soxna si nekk yëmbal. benn la oustaz benn la benn benn bu ko andil problème. indil ma ko problème. benn la am problème si nekk yëmbal naa am naa ko. saa fi fi toog di wax ni yëpp benn la amagum. non waxuma ay sox li ma lu ma. benn la am de li ngi nii puusal. d' accord merci benn la am si ne yëmbal xam naa ko. waaw kay d' accord. oustaz oustaz oustaz yàgg na nag de. soxna si nekk yëmbal xam naa ko. oustaz ça fait dix ans mi ngi toog di wax. waxuma ay soxna jabar nii te mi ngi si bennam rek ba léegi jàpp ñaar nañu nañu tàggoo nànk rek s'il vous plaît. non non non waaw s'il vous plaît waa régie. non loolu tamit war nañu ko tënk waa régie kan lan waa régie. soyez un peu civilisé. waaw waaw waaw ñu toog di wax na nit ñi takk takk takk. waaw s'il vous plaît on s'entend plus. di ngir yàlla dimbali leen ma rek. waa régie yéen tamit ah. s'il vous plaît musique bi ngeen ah, wàcce ko ñu deexal émission bi de façon civilisée MD d'accord ñun xamuñu lii d'accord merci beaucoup. waaw Oustaz Modou Fall ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax doon wàññi son bi tuuti rek. s'il vous plaît. Maba jàpp si boobu moonte grand technicien moo fa ne Mara. waaw Maba Maba Maba jàpp si rek MD bàyyi yi def nii fii du wane ma dimbale ma. ah Maba ngi fi ah. gis-gis nag. yaa oustaz jërëjëf Sofia. maa ngi ñaanal ñi doon seetaan ñëpp gis-gis. Ah. maa ngi ah, de temps la ma ne ko ñun dañuy dem ba trois de temps. ñu ngi def trois heures de temps daw. dañuy soog a ñëw moo tax. déggoo ñoom Bakary Banara gars yi naan leen da ngeen a miinagul xaw ma suba teel yooyu déggoo ko. Mm-hmm. yéen leen gis-gis fii doon yi dem ba heure bu nu neexee. Mhm. tant tant que serveur baa ngi dox. fii ak serveur baa ngi dox ñun doon yi liggéey dañuy émission. waaw mama rek laa si am ngeen chance totalement bu fa nekkul woon du baax ci yéen. Ah, ay ca oustaz oustaz Modou Fall. kañ la maba ñëw ñëw na sànq. ah waaw waaw ñëw na sànq te moom bu fi nekkee xam nga. non maba moom waaw non maba moom. maba moom kii oustaz kontaan nañu. maa ngi souhaité joyeux anniversaire sama xarit bii ma àndal fii. moo tax muy Pape Diop ah Pape Diop. day anniversaire suba. waaw ah, Pape joyeux anniversaire ndax min wi jot na. Pape Diop may ko gudd fan ak wér. amiin yaa rabbi daraja Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Pape Diop la kay. maa ngi ñaanal. Pape président Macky Sall. waaw. yal na ko yàlla may gudd fan ak wér. amiin ah, waaw. maa ngi ñaanal Adja Marème Faye Sall. kontaan na euh, euh, euh, père kontaan na fi mu nekk yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér man jàmm rek laa bëgg. amiin yaa rabbal aalamiin Sofia. président Macky Sall yal na ko yàlla may gudd fan. amiin amiin amiin yal na ko yàlla may soxnaam soxna Marème Faye Sall. amiin. fekkee réew mi bu nu gërëmee président Macky Sall am na ñuy xam wala ñuy crise uh-huh. eh, ñu ñu ñu làbbali ko xam ne ci la ñuy dëkk. dee sama xarit bi Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ngi koy gërëm. ak Aziz Ndiaye. di gërëm ak Aziz Ndiaye Aziz Ale Ndiaye. di gërëm ak Gorgui Sy Dieng. di gërëm la ministre <laughs> Moustapha Diop. Gorgui Sy Dieng ak Famara Dieng. di ko ñaanal wér ak gudd fan. ak Mame Ablaye Fall le trésorier de l'État. ak mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi. Mame Ablaye yal na yàlla sàmm leen. amiin te leen ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi ñu ngi ñaanal kilifa yi fi nekk yépp maa ngi gis journée xasida bu ñu war a def ca Touba. di ñaan yàlla itam yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. ñëpp dem Touba ci jàmm dellu si ci jàmm. ñëpp def ko ci jàmm ak dal ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ko yàlla defal képp koo xam ne fas yéene. amiin amiin ko ñaanal réew mi yëpp. amin réew mi jàmm rek a fi xaj. amin nañu bëggante yéenante jàmm. Mm-hmm. ndax Sofia dogal yi jiitu na sunu judd. Mm-hmm. wallaay ku ne li yàlla namm ci yow nit munu koo changé. Mm-hmm. bu yóbbu ñu rafetal ànd yi rek te jéem a fiixal xol yi di naan galaas fu ñu toll. nga yenn saa yi ñu ne la day lekk suukar ndax dangaa manqué suukar. mais réew mi naan galaas la laaj. di xeexal xol yi waaye di mer fuñ fuññi fuññeeg diw nangam te munoo koo teree am li mu war a am mm. loolu fa la coono yem mm. kon nag yàlla na nu yàlla defal tawfiix mm. maa ngi gërëm képp koo xam ne yaa ngi doon suivre émission bi di nuyu waa Kébémer bu fi duggee club oustaz bi dañ lay namb daal Ndiaye du ma fi gëj fii sama kër la dañ lay namb yenn saa nga gëj yenn saa nga feemu daal fii sama kër la yenn saa mu feemu waaw oustaz kay oustaz sama kër la fii sa kër la oustaz di ñaanal Benoît Benoît nag mu dellu si xam nga moom mi ngi Mali wallaahi biiwu Mali lay dund wallaahi yàlla ko yàlla delloo si ci réew mi wallaahi ba mu nangu li waa réew mi di dund wallaahi di ñaanal père nag yàlla may ko gudd fan di ñaanal sama xarit bi nga xam ne bërki démb la ma yónnee ay dàll yu cher yoo xam ne xam naa ne la muy jar cher na non loolu lépp yàlla cofeel la. dafa baax wala dëgg nag daa toog fii daa nga yor course bu rafet mu ne la rafet da nga yëkkati ko may ko ko donc su la paree loolu yor na dëgg la oh. nag yàlla saxal ci moom amiin ñaanal suñu jigéen bu baax bi moom itam yàlla yokk ko dëgëral di ñaanal président Bougane waaw moom nag suñu xarit la Bougane eh. Bougane sama xarit la sama soppe la mm. su may ñëw ci télé bi ba dajeeg moom ci bunt bi mhm. damay bëgg waaye tey bi ma ñëwee laajte ko ñu ne ma néewu fi waaw ah xanaa mhm. ma kii rek ñaanal ko waaw est-ce que du jaar seet si la balaa ngay dem waaw waaw da naa koo gis nag ah, oustaz gëj naa koo gis oustaz daal jaaral seet si ko dem ñaan la sama xarit bi sama doom ndey di coon ballaago yàlla yërëm coon ballaago sekk yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla oyofal suuf ci kaw wallaay waali boo leen ñam fa fekk sama doom ji ndeysaan doomam ji mu fi bàyyi muy waali sekk yàlla may ko gudd fan ak wér soxnaam si mu fi bàyyi it yàlla may ko xolu muñ sàmm leen teg ci njaboot bi loxo nag amiin yaa rabbal aalamiin kontaan nañu Oustaz kontaan nañu à chaque fois bu ñu ko amee suñu émission bi dañuy kontaan lool parce que tamit c'est pas très évident mais bon à chaque fois su fi ñëwee day am benn touche bu particulière bi ñuy indi mm-hmm. si émission bi et c'est très très important euh, dañuy bëgg di invité borom xam-xam mais suñu amul ouverture trop mën a muñ torop du ñu mën a waxtaan ak ñun parce que euh, dafay metti lool nga am sa xam-xamu bopp mu doon alxuraan nga teg ko fu leer ngay wax ñu naan la ah li nga wax d'accorduñu ci ah, ah. te mu leneen li ngay wax fi nga téere bi nga ko teg kenn mënu koo wéy mais nga am euh, ouverture d'esprit bu nga xam ne di mën a expliquer ba ki ngay expliquer comprendre ba mën a mm-hmm. fekk si la ci sa xam-xam day am mm-hmm. solo te yooyu dañ soxla bu baax Sénégal donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax Oustaz Modou Fall euh, boo delloo tamit bu fa yàgg dégg nga boo tukkee bul yàgg del teel a ñibbisi waaw <laughs> a il faut ngay waxtaan ak moom il faut ngay waxtaan ak moom su demee da yàgg yenn saa <laughs> nga dem Italie da nga faa bari ay sopp laal Schengen bi su góor gi si dee ñëwee. barke borom Touba Mbacke dinaa dem. man maa la wax ne dinaa dem. man xam naa ne Benoît dina dem ñëwaat te doo eh, dem. ndax da ngay waaj rek. dama ne bu góor gi dina moom bëgg nañ la góor gi si deen dina ma yóbbu foo jaar ci Europe ana Père Mbaye Ngóone ana Père góor gi si deen dina ma yóbbu barke borom Tuubaa Mbàkke dina ma yóbbu góor gi si deen loolu nag da ko def billahi dina ma yóbbu dina ma yóbbu yóbbee jàppal ni seddal nga xol yëpp waaw dina ma yóbbu góor gi dina ma yóbbu euh, Prospère ñu bàyyi la yow itam merci beaucoup madame Diallo merci beaucoup di gërëm effectivement Serigne Modou Euh, Oustaz Modou di ko hmm. ñaanal jàmm ji mu ñaanal ñaanal ko Sénégal yàlla na ko yàlla defal moom mii n'est-ce pas effectivement tu as raison ah ba teraanga moom a ko njëkk a ji man noonu laa mel man boo ma lebalee kër guddi laa lay fay maa la wax muy jéem a sàmba loolu mooy jikkoom dëgg la voilà di santaat yàlla bu baax ah di julliwaat si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma koy waxee sa may ma rek euh, tey ñi ne ah, bariwul lu suma rakk ji nga xam ne nii ma la première fois ma toog si émission mm-hmm. sax mais non ah, mais tey vraiment nee naa ko tey bu ma demee dinaa xamal ne yow yaa ma solo tey yow Sénégal mode waa Sénégal mode nekk fii cité Kër Khady villa numéro cinq mën a ñaw lool parce que moom devise am mooy chaque client est unique loolu mooy sa loolu in sa devise papa chaque client est unique nga dem téléphone am 77 317 60 39 317 60 39 merci wala 77 955. 0058 kontaan naa ci moom di wax ne sama grand frère dinaa ko fa yóbbu parce que moom deux yére trois yére oto rek la am. waaw bi mu soloon ci mariage. doom bi bu ci mariage bu tabaskee daaw. waaw ak bu tabaskee daaw ak géej bi émission sa mariage bi. non parce que moom day day kii rek. day redoublé day redoublé rek. waaw parce que y' a un an y' a un an ci ginnaaw États-Unis la tabaskee. waaw demul yére. waaw kii la soloon jàllaabe jàllaabe. États-Unis ah, ah, ah, maanaam dafa yàq ci oh. nasaraan bi. nasaraan bee koy yàq. barke borom Tuubaa merci rek. merci beaucoup Sofia ñoo ngi dooli sant yàlla bu baax. su dee wax nañ fi kàddu gu dëng ngeen baal ñu xam ne su ñun rek la lépp lu fi jub si yàlla la. di ñaan it waxtaan bi ñu fa waxtaan sama moroomu jigéen ñi laay waxal. ñu jéem si jàngat jëfee si. parce que gis-gisu tey bi tabaraka allah macha allah ku toog jël sa téléphone dugg seen TV l'officiel seetaanaat ko dana yaakaar naa ne dana am lu mu mën a soppi si lu positif si jigéen ñi may dellu aussi di gërëmaat sama borom kër gi du Baro eh, maa ngi lay faire un gros eh, coucou. sama yaay mi ngi sëy de normal waaw mu sëy ñàkk nag moo kooku mooy sama papa. non dafa am dafa dafa am. fii ci diggante bi non mënu see ñàkk. Ah, moom kay gërëm rek ñëw ba ci man jóge noa di bu ba. Mm, nu mu sant Thiès ba Dakar baro baro ñooñu ay Haalpulaar ñoom ay sëriñ ñoom de. waaw Wuramadiw lañu. Wuramadiw nañu. maa ngi koy. ñu fii ñoom ñoo nekk fii Mbour. maa ngi man jaguma. waaw baaxuma mu romb foofu yëpp ba fii ñëw. waaw tànn ma tabaarkalla macha allah baro mën a sigee maa ngi lay nuyu. nekkoon na ma ñaanal de sëriñ la. incha bu soobee yàlla léegi nag may dellu nag toujours ni may wax rek du moment que man je suis dans la riposte de la Covid. de grâce respectons les mesures barrières. Mm-hmm. restons chez nous. Mm-hmm. éviter les euh, éviter les déplacements daal moo gën loolu laa amoon daal lu may tàggoo merci beaucoup Safia. Aïcha Ben l'américain. di rafetlu émission bi. Mm-hmm. et puis euh, di nuyu sama ñaari xarit yoo xam ne ñu ngi ñuy suivre jógee France ñëw vacances muy Benoît Faye dëkk Derklé ak Ñoxor Gueye. Euh, émission bi dafa am loo xam ne dama bëgg góor yu bari bàyyi ci xel. mooy sañu kilifa bu baax boobu li mu dugg wax mu ne dafa ñaanal jabaram si ay kanamu nit ba jooy tey Safia ñaata góoru Sénégal ñoo ñaanal seen jabar ba jooy débat débat ñu de jeex na ah Safia ah. Ah, Aïcha ne réponds la provocation booy wax dëgg mm-hmm. am ñoo xam ne amuñu xolu jooy. Mhm. nii rek la ñuy waxee. Mhm. dañuy mer dañuy mer. mooy ñi nga xam ne. duñu gërëmaate xamuñu valeur jigéen. mais suñu góor googu. ak ka xam valeuru jigéen. dëgg la góor d'accord na. moo tax mu toog. ñaanal jabaram ba jooy dama bëgg rek ñi fi toog ñëpp ñu jàng si moom. parce que da koo liggéey ba nu ñaanal ko. mais arrêtez de crier là hein. allez-y elle a du mérite. non non non vous êtes en train de vous énerver. allez Ben. gaal damay dem dañuy ñibbi. Safia. nañu nañu na góor yi changé xol yi. góor yi di jooy di ñaan di jooy ak am solo. ñaanal sa jabar ba jooy. yàlla daf la koy won. nañ yàlla daf la koy won. ku ko def ñu jooyal la. arrêté waaw. close na ba pare. ah ma sama gémmiñ wax defuma dara je parle. ni may coupé. non ah, mais sa fan la tamit. lan lañ doon wax. c'est normal fan si la fan si ku liggéey rek mu ñor rek. ku mérite jooy rek ñu jooyal la. la. xaw ma da ngay tukki wala yal na la yàlla yóbbu ak jàmm ba mu ñëwaat. waaw bu ñëwaatee. il faut ñu taseewaat si plateau. doyaloo. non il faut ñu taseewaat si plateau échange bi gën a ah, ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm Sénégal bi ñi nga xam ne ñi si hôpitaux yi na leen yàlla yëkkati. Ah, mais ñu waxaat ko te dee Safia. a dóor mu ak a tey yi na trop. waaw y' a beaucoup de décès quand même. franchement y' a beaucoup de décès. décès yi bari na trop Sénégal. franchement vingt ëpp na ko. donc di ñaan yàlla yal na fi mbas bi jógee ku nekk na nga moytu quoi. na ko yàlla jëlee Sénégal. loolu daal laa doon tëjee amiin amiin merci beaucoup maman Oumou. ñu ngi lay jaajëfal bu baax madame Baro kontaan nañu bu baax a baax. un un grand bonsoir à monsieur Baro ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yàlla baax na. Ben. à dimanche incha allah. incha allah bu neex merci beaucoup Dieye Massamba à dimanche merci beaucoup yaa oustaz kontaan nañu bu baax a baax di la jaajëfal encore une fois suñu mbokk pas-pas la. dañ ko bëgg rek tax. donc kontaan nañu bu baax euh, papa. waaw waaw yow kon ba. nekk na di nuyu ñëpp rek. di ñaan réew mi yëpp jàmm am fi ci barke Sëñ Touba. di ñaanal oustaz Modou Fall gis ngeen. ñëpp ñaanal sama équipe bu bees bi Mabba. Ah, waaw waaw ànd ak MD ñëw waaw. waaw ak mm-hmm. kii. MD. Mm-hmm. ak kii. ñeneen ñi yàgg nañ fi jarul jarul. waaw waaw ñoom yàgg nañ fi bu kii mi ngi fi le jeune kii. le plus jeune le plus yàgg kooku maa ngi moom defuñu neen. bàyyi bàyyi li nga wax yow tamit. ah ba non ba xamante kële. ah yii góor gi si dee damay ñaan yàlla indil ko. yàlla kii damay ñaan mu indi Coupe d'Afrique. <laughs> Coupe d'Afrique actuellement il est en regroupement. oui ñaanal leen ko àdduna ñaanal leen ko ndax li mu opté. mooy yàlla may ko ci barke borom Touba mu indi Coupe d'Afrique te Coupe d'Afrique Rwanda la waaw kon na ngeen góorgóorlu su soobee yàlla ak yonentu beeg borom Touba su demee ba phase finale ba phase finale barke borom Touba góor gi si dien du ma ko ne damay ñëw damay dem finale rek waaw ci ba am na ku tudd soxu ku lay bëggee bu baax waaw soxu soxu ah, Fermoz nel soxu maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant baax nee na yow la bëgg yaay dañ may coupé de dañ may coupé de mais góor gi si ñaay envoyé ma le numéro 14. Dorina d'accord. Adja Walimata Diallo. waaw Bataille. d'accord. damay ñëw nu ànd fa. d'accord kontaan nañu bu baax a baax. merci beaucoup Aminta Paye maa ngi lay nuyu baax. Sophie Gueye Sophie Gueye Sophie Gueye Sophie Gueye lan lan lay def ci àll bi Sophie. Ah. ah Sophie lan la lu xew. Sophie dafa doy waar liggéey dina ñibbisi doy na. liggéey boobu ba léegi. ab liggéey day am àpp Sophie ñëwal dëkk. ñëwal sa baa papa di mer ñëwal. ay ah. ca Pape Diop on te souhaite bon anniversaire. Ah. di la ñaanal jàmm bu ah, baax a baax. Pape Diop moo ànd ak oustaz moo ànd ak oustaz. happy birthday yàlla defal la jàmm ak salaam incha allah boo amee boo fekkee am na soxna yàlla na yàlla def xam nga jàmm. <laughs> Ah, oh, ah moom eh, Pape. nga am ci tout temps tuddee ko oustaz <laughs> Modou Fall. waaw waaw tuddee a ñàkk yàlla ko yàlla de yàlla nga taawloo góor teg ci góor teg ci teg ci jigéen. incha allah incha allah incha <laughs> eh, euh, ah, kontaan nañu bu baax di doom yi ngay lim bëri nañ de. oui ma on se retrouve incha mm. si tout va bien dimanche portez vous bien au revoir. Rimlac, votre yaourt brassé, une nouvelle au goût authentique, mon lundi maï. émission Gis Gis. samagaña alasu ture bi fi ñoom maam woon jikko yu rafet ji ñu ràññe woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën wax la ki doon samagaña alasu ture bi fi ñoom maam woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon ana sutura bi fi ñoom maam woon jikko yu rafet ji ñu woon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 sur wax baaxul. te réew mi loolu lañu tànn. dal nag mënu fee am. ndax yàlla bindee àdduna rëbëx rëbëx rëbëx rëbëx mais ku muusul.